Jefete, jefete, jefete, jefete. Jajef, Jajef, Jajef, Jajef. Mr. Sheikh back in the house to be. Back in the house, back in the house. Hargai debu. Ah, Jajef dari The champion. Oke. Okay. Salut champ. Sama gay nu udah ngeen def Jajef naka affaire yi ba mi ngi dox Lamine jaajëf lu bes lu bes aw ñu ñëwati waxtaan eggali waxtaan bi sama gaay ok bonjour tay mom tay mom taw bi sonnal nañu sonnal nañu trop fi New York ah way nak taw mom xewal la nag wax deug taw mom xewal la way sonnal nañu tay dañ ne won du taw ba ay 2 heures mais gis nga instant yi mooy loolu waa gars yi xam nañ ne moom mooy ma boutonné sama lii dëkk bi moom Amérique moom dafa sedd ah jaara ngoog ah jaara ba léegi kii nga modérateur nga ah c'est bien kon modérateur bu ñu la ko defee dafay day nekk automatique ci yeneen vidéo yi c'est bien jaara ku dekkoon na rek sax kii ko bay goo ko Papa Diagne mi ngi fi très bien très bien waaw ah, waaw gars yi mel na ma na ma tuuti xaar ma teg téléphone bi nii ngeen baal ma parce que dafa sedd te kaw bi dafa sedd te il faut very very cold dafa ñëw foofu moom sama jege bi nii nga xam ne ngelaw li du ma dugg du ma dugg fenn jaajëf jaajëf Babacar waaw bu leen fàtte nag jaara ba mi ngi fi ku fi dekkoon ne rek jaara ba da lay kii jaara ba modératrice la ku fi def commentaire bu bon jaara ba da koy dindi loolu la ñuy wax baygon da koy baygon Ibrahima Playa moom it est-ce que waruma ko def kii mais Ibrahima dafa dafa gentil trop est-ce que waruma ko def euh, euh, modérateur nday tuuti bari dafa baax ba mu ëpp lu mu ko def modératrice parce que day yërëmaate jaara ba rek waaw ah, jaara ba Xadi Juuf ren am dañu pànk ñoo dañu pànk ku fi déconné rek ñu baygon la waaw wa gaay gis ngeen demb xam nga tax seetaan ngeen sama vidéo job bi ma doon ut ni mu doy war tardé tardé bu metti duma leen wax ndax amna ko wala awmako parce que amna ñoo xam dañ fi nekk di ñaawalaate quoi waaw dégg bay gon rek babakar bay fi ku fi dañ lay gon jaajëf fa am gaa yoo xam ne dañuy ñëw fii di yàq laay bi Mister Shake bëgg tojal Mister Shake Mister Shake war a dem ut liggéey di tardé te américain moom boo tardé moom mooy loolu mais man ñëw ma fi pour ay loolu sax man corona bi laa leen di wax waaw man corona bi wax dëgg gis ngeen New York on pas confiné waaw on pas confiné Ah, macha allah gis ngeen ko nit ñaa ngi toog seen kër da ngaa bëri yërmande kay ndey tuuti da ngaa baax mosuma la gis nga xoloo kenn mais jaara ba moo fi nekk chaque jour eh noppil eh bul ñu sonnal Ibrahima tamit des fois dinaa gis mu dal ci kaw gaay yi mais pour le moment ñetti modératrice laa laa am waaw jaara xadi Khady njoxo Ndioxo Baye ak Ren Noir Gambien bu pànk boobu waaw ah, waaw ku fi nekk jaajëfal ku fi nekk di déconné rek dañ lay dañ lay bàyyi yi àdduna amul solo nañ sant yàlla saa yu ñu yeewu man saa yu ma yeewoo li ma njëkk xool mooy sii est-ce que je me sens bien waaw gis nga corona bi daf ñëw tiital tiital ba nga xam ne xam nga da ngay waaru daal. Brimel jaajëf. jaajëf jayalamin Lamine Baye Gora rek kay jaajëf taf-taf ah waaw sama job duma leen ci wax dara duma leen ci wax wala duma leen ci wax gis naa gars yi ni ma doon ñaawalee démb ba may doon dem dama doon filmer direct direct laa filmer pour wax leen job bi mu doon ut gis nga nu mu yow yaa ngi ut job di daw nga tardé te man tardé du ci man kii nee na day fay fay New York ah Pape maa ngi lay fay kii nee na ma bul tiit jaajëf Bachir Touré jaajëf jaajëf sama fidèle yi jaajëf comme ni ko Ibrahima tuddee les historiques là ah, waaw kii nee ceeb dañoo xiif Sénégal ah da ngeen xiif <laughs> xanaa corona bi moo leen xiif ah, dañu baax yàq liggéey ñu bëri kay <laughs> waaw gars yi ñaan leen mu bañ a taw mën naa def lay bu gudd de parce que job bi moom mooy loolu job bi du ma leen ci wax tous parce que daf ci am nit ñoo xam ne dañu ñëw ñëw fii am na ñoo xam dañ ma yene am na ñoo xam ne wuñ ma gars yi ree nekk fii di ree démb message tardé trente minutes laa tardé trente minutes te américain moom mooy loolu liggéey ñoom amuñ ci caaxaan ñu liggéey liggéey bul tardé mukk mukk mukk mukk mais instant bi corona moo xew ku liggéeyul sax da ngaa war waaw man job boobu man nee naa leen chômage bi bu ñëwoon job boobu dootuma gis barke Rasuul laay dootuma gis parce que corona gars yi dafa doy waar feebar kenn bëgg ko man du question sax corona man soj soj soj rek soj daf may sonnal waxtuma laaj feebar ndaw yi très bien ñi like ñi like léegi ay jàmbaar ngeen may gars yi like leen li ngeen war a njëkk def mooy boo duggee li ngeen war a njëkk a def mooy ngeen like partage ndax am na ñoo xam ne du ñu gis live bi am na ñoo xam ne comme yeen su ma dugalee rek da ngeen koy gis eh jaara bul juum nag ba baygon sama ga <laughs> baygon koo warul baygon dégg nga waaw ah, mais bi ba ngeen respecté jaara waaw ah, séeréer yeeg yooyu jaara moom nee na séeréer yi lay baygon Xadi juf moom bu ñëwee commencé baygon tukkuleer yi waaw ah, maa ngi fi gis nga gaay gis nga corona bi booy xool booy xool baax na ci benn côté xam naa su ma koy wax ñu bëri dinañ ne damaa soxor wala daf maa dalagul wala yooyu mais billaahi corona bi baax na ci benn côté ni ko Marana waxee rek corona mooy grand égaliseur barki Rasulullah ñëpp a tolloo fi mu nekk nii amul borom borom oto borom kër borom waykat ah mbër déggatu leen wax ci Modou Lo kii de. déggatu leen ñu wax ci am Sène Modou Lo Modou Lo ku mu waroon bëreel sax Ama Baldé déggatu leen ko de waa Luc Nicolaï moom ana mu ngi ci président bale léegi déggatu leen ñu wax am Lo Ama Baldé de leen Pape Diouf ne day def concert Sida Tidien wax na leen ko da partager partagé da leen like treize like c'est pas c'est pas waaw corona bi looloo tax mu baax. loolu tax mu baax ñu fi nekk di ngand ngand di rëy rëylu ah di jaay mana? di jaay daraja amul musicien nga amul loo mënti doon fi mu nekk ñëpp a tolloo lépp arrêté lépp lépp lépp lépp lépp lépp waaw lii nag dafa baax pour nit ñi xam ne àdduna du daara du tous du tous du tous boo yeewoo li ngay ñëk def ah man de xawma yéen mais man buma yewoo li ma ñëk def mooy ma xoolaat sama yaram xoolaat sama yaram ndax soju ndax sama bopp méttiwul comprendre nga bu la darul na nga ne yii alhamdulilah alhamdulilah xaaral ma moytu nit ñi walaay am na kenn ku ñëw fa ak maskam waaye dina wóorul waaye di moytu corona corona ba oto oto daal di la fiir moom benn yàlla monsieur voilà loolu loolu mooy problème bi billaahi loolu mooy problème bi yow boo yeewoo dara dalu la rek santal yàlla parce que nit ñaa ngi dee fii maa ngi gis ay célébrité yu dee kañ wax ne moo dee il faut nga jox leen information il faut ma jox leen information parce que démb am na affaire yu bëri yu ma jàng am na benn euh, test boo xam ne américains yi defar nañ ko test bi en 5 minutes. Fatou Tiara, Djadjaf. Test B, Amzon Djadjaf, Djadjaf. En 5 minutes, d'aller voir. Bon, positif. Les Américains, ils ont beaucoup de choses. Le corona, c'est ce qu'il y a. Parce que les Américains, test bu amerek day wagné ko jeex bi nak waxuma dañ ko faj dé mais américain yi genn nañu ben test bo xamné le 1er avril lay lay lañ koy approuver lay commencer man dama leen di jox information gars yi man duma ma liveur boo xam ne damay ñëw fii di wax man dama leen di jox information xam ne leen di jëriñ waaw léegi li ma liir américain euh, approuvé nañ benn test mais test bi euh, cinq minutes bu ñu la ko defalee dinañ xam ndax am nga corona treize minutes boo non cinq minutes boo positifé dinañ ko xam am bay camion bi romb bay camion bi romb waaw gis ngeen tali ni mu vidde instant yi mi ngi 11h ñu ngi ci 11h xam 11h30 moo jot fii mais gis nga tali yi ni mu test bi en 5 minutes dinañ xam tu es négatif tu es tu es positif en 13 minutes en 13 minutes dinañ xam si tu es négatif. treize minutes négatif cinq minutes positif xam nga kii boobu lu tax mu baax test bi lu tax mu baax test yi bu ñu ko defee bu ñu xamee ne yow en cinq minutes ñu xam ne tu es positif bu boobaa bu boobaa dinañ la mën a mettre en quarantaine ci saa si comprendre nga doo mën a wàll kenn mais test yi ni koy defee instant yi waa gars yi defal ndànk waa man samay gants fan laa ko def ay gars yi man dama am ay gants yu nice parce que instant yi mi ngi commencé sedd de xaar la ba dama ko bay gàllawaay ay gants yu moins gants yu baax mais dafa mel ne bàyyi naa ko kër ga de sama loxo yi dinañ sedd ci gants yi mais la vie voilà waaw gants yi gants yi bàyyi naa ko mais mais test bi li tax mu baax yow buñ la ko administré boko amé légui dañ lay mettre en quarantaine comme ça do wal ken mais instant test niñ ni ñu koy defee li tax mo bon moy yow dañ lay tester ba pare na la demal sa kër 4 jours après ci le résultat yi di génn mais 4 jours yoy nga nek sa kër wala nga dem liggéey ku saaga rek waaw waaw ku saaga rek supprimer ko non définitivement amul amul non définitivement c'est-à-dire euh ci ci ki bi ci da koy supprimer définitivement beneen vidéo dina am droit dina am droit mu ñëw commenter mais ku saaga wala mu def fi commentaire bu mu warul def jaara boobu di saaga Mister Shake wala muy saaga ñeneen ñi wala di fi ay wax ay wax yu ñàkk fayda waaw non waxu yu ñàkk fayda yi bàyyi koog man comme waa ji ma laaj démb ne ma ndax yow xanaa yow kii da nga ciy da ciy gañe xaalis laaj yi ngay def tax da nga ciy gañe xaalis yow loolu la lañ ciy laaj. Mister Shake mi ngi def vidéo da nga yaakaar ne xaalis moo tax may def vidéo man fii Amérique la maa ngi Amérique ah vidéo yi may def nii yeneen vidéo yi moo ëpp xaalis bu doon xaalis rek laay ut du ma def live live boo koy def doo am xaalis bu dee xaalis rek laa bëgg du ma def live damay dem dagg vidéo bu ndaw bu cinq minutes nga xam ne nit ñi moom la ñu am temps seetaan boobu moo lay indi xaalis mais nekk fi di ma laaj ah ndax yow da nga bëri da ngay ut xaalis mais Sénégal yi ci boppam moo sonn dafa am gars yoo xam dañoo sonn man mr Shake maa ngi fii america america fii affaire xaalis amu fii fii da ngay toog gouvernement bi di la jox xaalis ne la bu liggéey comprendre nga 600 dollars par semaine ne la bu liggéey toogal sa kër ñun ñooy dem di jéem a liggéey yow nga nekk fii di ma wax ay waxu xaalis. genre yoy ko fi wax genre yoy bu la que nga laaj ma jaara waaw yo dal user que ce xam nga historique yi xam nga les les ñu baax ñi xam nga len ku xam nga ko ku fi di voilà la doon wax sax américains yi nañ test bu que test bobu corona bi di propagation bi maanaam ni muy lawee dina arrêté ndax buñ la testé xam ne yow am nga ko dañ lay téye mettre la quarantaine dootoo ko wàll keneen voilà ki nee na profiter ci vie waaw kay Clara corona bi loolu tax mu baax man de maa ngi profité gis ngeen ma maa ngi nii di nekk ci mbedd bi di dox jël sama temps macha allah waaye sama gants yi de bu mu ko indiwaaloon dina baax man de xam lu ma dafa bàyyi gants yi foofu sedd bi mu may sonal temps yi yaa may dégg affaire bi loolu la ko ça va être compliqué ndax gars yi dañoo dañuy feebar je sais pas ki nee na bu leen saaga mais bu laa bàyyi leen ñu saaga fu si saaga jaara ba jaara ba mi ngi fi jaara moom amul caaxaan waaw mais mais am na ko fi wax léegi Clara Ndiaye nee na àdduna da nga amul solo xaar ma simi sama verre yi instant yi dafa xaw lëndëm fii àdduna amul solo Clara wax na ko waaw amul solo àdduna amul solo yéen ngi dégg tu me fais rire gis nga genre yooyu genre yooyu nekk fi di wax ay tu me fais rire ak gis nga bo deful ndànk dañ lay dañ lay bay boobu parce que ñu ñëwuñu fi pour nek ay comédien wala affaire yooyu gis nga jaara genre yooyu may ko benen chance may ko benen chance mais bu fi nekkee di wax ay tu me fais rire rek tu es un comédien affaire yooyu loolu lañuy wax limite limite limite commentaire limite limite jaara da lay bay <laughs> baygon da lay zappe voilà ñun dañuy ñëw fi pour reetaan corona bi du ay faux corona bi du ay caaxaan du ay fo du ay tiaxan ndax kenn bugul febar gay febar neexul febar neexul nit fo tok da nga bëgg nek à 100% bugulo sax am pitch bu la dal wala socc waxtuma laak sa bir di daw sa bop di metti ah jaajëf ah, ki neena je m'excuse alors en ah, mati mati <laughs> jaara balal mati balal mati très bien mati li moy nit bo juumee da ngay da ngay da ngay da ngay xam ne da ngaa juum ñun ñëpp ay nit lañ xam nga mais corona bi gars yi dafa sérieux dafa sérieux dafa man dama bëgg sensibiliser waaw li Clara Ndiaye wax dafa am solo il faut de la vie Clara li mu wax dafa xam nga la mooy profiter de comme ni ñun ni ñuy yeewoo tey di tala seetaan Mister Shake waaw gars yi supermarché bii laa leen di wax fii fii moom fii moom Brooklyn Brooklyn bi fi corona bi lawee supermarché bi moo tax mu gën a law parce que fii respecté wuñu xaar ma daw sax xam naa ñu ngi naan waaye lu tax ngay filmé instant yi nit ñi ñëwaguñu sax mais fii dañ fii tànqaloo ki nee na ma tuye gis nga gis nga ñaari juif yi la ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom c'est-à-dire ñu daal ñoom tànqaloo daf leen neex xool leen xool leen fële gis nga leen ñuy traversé amuñu sax xam nga ma gisoon littoral bi cest seen dankaloo ci boppam moo leen neex dafa mel ne rek mel ne africain gis nga leen ñu di dugg supermarché gis nga gis nga leen ñu dugg noonu gis nga fii amul rang amul dara eh ah, xeexal diine islam ak yaa mun yow xeexaloo dara eh jaara xeexal diine l'islam boobu zappe ko parce que mu ngi saali acca jaara bay gon ko bay gon ko balaa may dee ñuy wax ay xeex ak diine lislaam ba pare di saaga ah yéen naa naafeq yu bon jaara bu mu la rëcc de am na ku tudd xeexal diine lislaam zappe ko waaw ah, mënoon naa ko man suma bopp mënoon naa ko baygoon sax mais dama bëgg jaara baygoon baygoon ko mu ngi nii ah jaara yow jaara yéex nga de waaw kay non non jaara waxuma la ay 300 secondes luy loolu lu tax nga koy time out da koy élimine

fii fii quartier juif la ñu nga xale juif baa ngi ni tourné di ma xool policiers yi wax ci dóor nit ñi wax naa ci ba pare gis nga Nassirou Faye nee la jaara supprimer ko voilà baygoniser il faut le baygoniser définitivement voilà <laughs> xeexal dina islam il faut le baygoniser définitivement parce que kii xeexalul islam kii kooku iblis lay xeexal voilà

waaye yow mais ñii dañu dañu non ah Baygonisé maa ko njëkk wax de maa ko créé mais ma Matatoire Trapp moo créé moo créé Baygon ah Khady Diouf Ngok moom tamit très bien moom tam modératrice la Khady daf am ay nit yu ñëw commencé saaga am na benn waa ji tudd léegi xeexal diina l'islam mais kii Baygonisé na ko jaara ba yow tamit ku fi nekk fi di teg ko nag ah di ma xas walla muy saaga samay abonné baygoniser ko voilà dama len di man reportage la len di jox pour war len ne corona bi xeyna na Afrique fi fii États-Unis mën na am d'ici 1er mai lañu ñu yaakaar ne xeyna dina jeex macha allah macha allah jigo neena ma dama leer ma ngi lek sama xaalis macha allah xam nga fi lu fu neex xam nga fii lu fu neex dama len koy wax Amérique lu fu neex bo yewoo surtout nak daf ci am kër yoo xam ne boo ci nekkee macha allah ay eh, xaar ma noppi wala ma jot sama bopp sax <laughs> wóorul wóorul bàyyi ma noppi rek mais en tout cas macha allah ki nee na ma yaa ngi leer yaa ngi lekk sa xaalis ah maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla waaw gis nga kii nee na même avec zéro euro sax Clara Ndiaye même avec zéro euro sax da nga war a profiter xam lu tax nga war profiter parce que santé mooy xaalis Clara boo dencee ay milliards ba pare feebar Clara mais doo tal xaalis boo dencee ay milliards doo xaalis voilà léegi nag test bi gis nga test bi bu ñëwee ah dina tax affaire yi wàññeeku ñun nag yaakaar nañu fii Amérique fii ba fii ba euh, premier mais mën na am ñu commencé waat tijji restaurant yi. Donald Trump Donald Trump dafa buggoon Donald Trump dafa bëggoon tijji affaire yi le 12 avril dafa bëggoon tijjiwaat lépp le 12 avril le 12 avril la bëggoon tijjiwaat yëpp. mais dafa am benn docteur bu ñuy wax docteur Fossi kooku moom moo res affaire yi moom mooy spécialiste moom moo ko tiital nee nañ bu ñu sagganee Amérique mën na am 100000 morts gars yi docteur boobu nee na Amérique bu ñu sàgganee mën nañu am 100000 morts 100000 ba mu waxee loolu nag ci la ci la. ci la euh, job bi du ma leen ci wax dara parce que démb damaa tardé te nee leen fii américain boo tàddee da lay dàq démb ba may dem ci bus bi laa nekk di filmer sama bopp film boobu sax dama ko mujj éliminer dama ko mujj éliminer yéen ñi ko jotul seetaan amul leen chance mais démb def naa benn live vingt minutes xaw ma trente minutes boo xam ne dama tardé nekk ci bus bi war a dugg dem liggéey quatre heures ah. tardé ma leen di expliquer ne maa ngi nii waaj a dem ñi ko seetaan xam nañu am nañu fi nekkoon di di ma saboté ku mel ne Cheikh Seye gis la sànq gis naa la di ma saboté di reetaan xaw ma ndax affaire bi comédie la ko def yow nit ki mi ngi dem di uti liggéey ñaanal ko mu am mu am liggéey mais am na ñoo xam ne waxuma ne Cheikh Seye loolu ko dal mais daf ci am ñoo xam ne ñu ngi yàkkamti woon pour ñu dàq Mister Shake kii di ma laaj ndax dem ba liggéey naa kon moom seetaan na ma Cheikh sey ngi ni di retane ba legi attention de Cheikh sey bo dof dof lo ba jaara ba wala khadi Diouf bay gonise la mais nak Cheikh dafa mous mom day ré rek du commenter am nga droit ré am na ku ne yi affaire bi dafa wara nek démocratie deug la démocratie la démocratie la mais ki néna ma Birima frère néna bu wax fi nga dëkk gisoo sànq léegi am na ku ma ne da ngaa leer dem naa ba commencé wax benn affaire ma ne ah xaar ma noppi parce que li ma dal ci liggéey bi démb dafa tax léegi ma gëna nek nekk mané xaaral parce que démb dama juum mané 4 heures lay liggéey ba ma ko waxee rek dama tit man ci man mi waru mon wax mo waru mon wax nek 4 heures dé gars xol xool leen mané la man mi waru mon wax nek 4 heures laay liggéey sawaay ma génn sama kër jaajëf garmé 2 heures quart la génn sama kër ko wara ko wara war a liggéey quatre heures génn sa kër 2 heures quart kay koku waro tardé te fi nga jëm ay 45 minutes maa nga egg wala lu lu mu yàgg-yàgg 50 minutes mais bi xam nga fi ak corona bi ak weekend bi train yi nu muy nu muy daan dawee du ko dawee avec avec régularité bi muy daan dawee du ko dawee ay sama kër damaa génn rek commencé daw gars yi macha nag man maa ngi entraîné maa ngi daw xam naa am na ku ne monsieur Cheikh guerrier nga parce que man damay nekk ci mbedd bi di daw xaw ma ndax maa ngi nooyu koro bi xaw ma ndax nooyu ma mais xoolal bëreet dama génn sama kër rek commencé daw parce que xam naa dinaa tardé set minutes sept minutes def naa côté yooyu laa laa def pour egg ci subway bi mooy métro mais instant yi may daw xam nga fii subway bi da koy dégg si suuf si ma dégg train bi di dem ma ne laa yàqu naa mais ba ma duggee ba ma duggee kii nee na ma solal gant am naa gant yu nice mais dama ko fàtte kër ga mais heureusement tey seddu noonu tey seddul noonu xam nga mais am naa gant yu rafet yu ma jënd yu ma am mais saway train boobu rëcc ma dama obligé xaaraat beneen train 30 minutes train boobu ñëw fii dafa bëri bëri xaaral ma jàll ok léegi léegi train boobu ba mu rëccee ma jël ko jëlaat beneen di xaaraat beneen train train boobu ma xaar 15 minutes donc j'ai perdu déjà 45 ba ma demee Grand Central su ma waree jël bus bi te dafa rëy man nag xaw ma fan laa war a jënde billet gise bi gisuma ko xam nga rek booy paniqué mais maa ngi daw di daw heureusement ma gis benn guichet guichet électronique xam nga ba ma gisee guichet euh, électronique bi ci laa jënd sama billet ma dugal crédit card crédit card bi jàll ma dugal 10 dollars maa ngi naan sama wecc xam naa dina am ko parce que am bi 9 dollars la jar mu jox ma sama wecc mais heureusement bus bi ma waroon jël ba ma demee ma gis gars yi toog ma ne alhamdulilah waaye ba léegi damaa tardé te américain boo tardé mooy loolu léegi yéen yéen laay bàyyi ngeen def conclusion ndax Mister Shake am na liggéey bi wala amul liggéey bi gars yi fële laay dem gis ngeen fii il fait beau mais bu ci kanamee day day day day euh, day naaj il fait beau comprendre nga Mariama nee chez vous kii nee na ma ba ban jàngat nga am ci Amérique ak Afrique Afrique dañoo nekk en retard Afrique dañoo nekk Babacar Mbaye mu ne nee na lan laa gëm yàlla rek laa gëm Afrique dañoo nekk en retard par rapport ak Amérique ndax dëkk boo xam ne da ngay ñëw au moins man maa ngi leen di wan sax ne maa ngi dem uti liggéey am naa ko wala awma ko garaawul mais gis ngeen ma jël nañ ma te fii un mois et demi laa fi dafa gum am naa fi ñaari liggéey yu ma commencé parce que bii ci internet bi laa ko commencé lu bon bon fay nañ ma si tax même bu dee trois heures de temps fay nañ ma ko ci mais avant bii amoon naa beneen liggéey boo xam ne corona bi moo ko tëj Sénégal nekk naa fa trois ans et demi ci ma ne ki ma ne e kooku lu mu bind nee na américain xaw ma dangaa tardé xaw ma ah yi bu fàtte ne ñaari gars yi Khady Diouf mi ngi fi de te day baygon Diarra Ba mi ngi fi day baygon waaw Khady contrôlé ma kooku lu mu wax am na ku am na ku bind boo wax ne xaw ma dangaa nekk Amérique tardé xaw ma xaw ma ndax loolu la bind mais contrôler ma li mu wax voilà gis nga fii benn genre kii la fii euh, genre école la institut ay vidéo dañ fi defar fii xaw na rafet xaar ma taxaw tuuti voilà léegi lan laa doon wax sax dama waa jooju xool leen ma xoolal leen ma lu mu wax Pape Diagne waaw bu tuyee nañ ko bay ko ci ma laaj Amérique ak Afrique ban différence loolu loolu rek junj doy na boroom xel man ma ñëw ci dëkk un mois et demi am naa fi ñaari liggéey benn bi commencé naa ko corona moo ko arrêté te xoolal boobu une semaine laa ci liggéey cinq jours cinq jours laa ci liggéey wala six jours fay nañ ma ci ñaari yoon Sénégal nekk naa fa trois ans et demi aw ma liggéey au contraire man maa jël sama xaalis di di ko def foofu. politique di def ay meeting mais gisuma ci benn retour gisuma ko ci politiciens yi ma liggéeyal liggéeyal naa ay politiciens yu bari mais dañoo lekk sama xaalis barki rasulaay politicien bu rëy dama ko dama koy suturaal nag dama koy suturaal politicien bu boo xam ne ci ci ponkali APR la bokk dem naa ba ay toog ak ay frère am toog ak ay frère ñu dig ma lu ne def ci sa xaalis def lépp après dinañ la rembourser ma def ci sama 2 millions mais eh kii moom man maa koy man maa koy baygoniser sama bopp Frédéric Frédéric Baye nee na ma téye fou baygoniser naa ko <laughs> mais gars yi il faut gaaw jaara jaara ak Faqadi Diouf mais genre Frédéric yi waroon la bàyyi ñuy ñuy traîner fii ñaata kaa moo am Sénégal Mati ñaa nee na la Sénégal en retard waaw loolu rek Mati loolu moo lay wan ne Sénégal dafa nekk en retard ndax yow dèjà da ngay ñëw pour liggéey duñ la jox liggéey mais yow li nga am as tuut dañ koy nangu sax far Mamour Diallo laa fi laa fi collaborel mooy nit koo xam ne au moins sax booy collaboré da ngay gis ne moom au moins mi ngi investir mu ngi dugal xaalis foofu sax tane na mais yeneen politiciens yi zéro kon ki ma laaj Sénégal ak ak ak ak ak Afrique ban différence Amérique ak Sénégal ban différence Amérique du le Sénégal Amérique est Amérique sa dignité que la dignité nit la waaw Wow, sama que dafa petit non dafa tombé rek mu ko nit la la dignité nit mooy liggéey man fii liggéey bi C'est problème américain dañ naan ci liguey bi dafa metti mais xamou ñun africain dañu dañoo daj ay affaire ba nga xamni bu ñu ñëw fi gis ñom li ñu wax metti ñun comme ndox ci ñun yow liguey bi dang koy def di ci jëlé plaisir parce que bo gëjé liguey xam man gëjna liguey 3 ans hein ah? 3 ans ma ma ma toog Sénégal maa ko maa ko choisir nak té rëccuwuma ko ndax dama tamoon pour noppalu ko yor sama xaalis di ci dund normal mais ba ma ñëwaatee dama sama batterie dafa chargé macha allah damay sawar pour liguey ki di ma laaj ndax am nga papier yow yow gan yow wacc bes nga motax wacc bes nga motax nga may laaj ndax am nga papier waaw tontul len mako ko kooku di ma wax ndax am nga papier wacc bes la yaa may dégg mais ba ma ñëwee dama sawar motax tax liggéey bi ma njëkk am liggéey fa une semaine taf taf dama ko liggéey ba gaay xolal en une semaine billahi ñu may tag barki rasulaay une semaine hein ah, tag nañ ma tag ne am na am na benn instant boo xam dañu woo patron bi ko xoolal li mu def lii mu def nii ni mu ko defee nii parfait daf ko def benn job xam nga day bëri ay ay ay kii ay facettes mais du mu wax lan laay def mais xoolal ni mu ko defee dafa woo patron bi ne ko xoolal kii ni mu ko defee parfait mais liggéey boobu bon nice da nga ciy jëlee plaisir macha allah ba pare bu ñu la fayee nga kontaan corona bi yàqu ma utiwaat beneen liggéey yeneen sax laay wax yeneen liggéey mais liggéey yi ma am liggéey yi yi dañ ne ma jël na ben gaay bu joge France ñëw fi bëgg indi job fi billahi koku dem na ba tok mom def li ñuy wax interview fi boo balaa ñuy liggéey jël dañ ngay ñew nga tok nga ñu interview ñu laaj la sa experience, laaj la li ñuy wax sa résumé résumé moy li nga li nga jot def moy sa CV mais ma toog ak moom wax ak mom waa jël ma ne ma bu corona bi jeexee avril la bëggon commencer mais moom xamuloon ne corona bi day day day tëj lépp kooku tey bu ñëwee am naa job foofu te job boobu dafa dafa bëri na xaalis waaw job boobu bëri na xaalis boobu sax mën naa leen wax ñaata lañ wax lay fay pour wax la rek vingt dollars à l'heure xool leen loolu presque ay douze mille francs ñu la koy fay chaque heure douze mille chaque heure benn jour rek mën nga liggéey dix heures de temps benn jour mun nga ci liggéey cent dollars romb ko cent dollars mooy cinquante mille te liggéey boobu moo gën a man normalement man man normalement ak diplôme yi ma am man normalement su ma demee def sama liggéey bi ma war a def trente dollars lañ may fay par heure mooy mooy liggéeyu avocat bi ma daan def mais bëgguma ko def bëgguma ko def temps dama bëgg essayer yeneen job yeneen job am na am na ku fi nekk di ma laaj ay liggéeyu bato bi nga doon def waaw kooku liggéey la liggéey la bateau mooy bateau de yu mag yi foofu tamit maa ngi fi jéem a toppatoo mais foofu corona bi moo ko tëj moo tëj foofu moom foofu moom foofu moom waaw parce que parce que corona bi xanaa balaa kan kan moo ñemee dugg ci ci euh, ci ci bato naan da ngay dem liggéey ci corona bi instant yi non am man sax ñemee naa ko ñeme naa ko mais instant yi amuñu ay client parce que parce que ñu bëri liggéeyatuñu bay wax naan dañuy dem ay vacances di dugg ci ay bato di di dem ay vacances ñu bëri liggéeyatuñu kon liggéey boobu même buy am après après après lay doon mais nag man du ma ko fi xaar moo tax ma ut liggéeyu démb bi mais liggéeyu démb bi dama tardé dama tardé te américain bugul tardé tardé bi nag li tax ma tardé ah am na ñu ne ma euh, am na ñu ne ma lamine la lamini bul wax lépp parce que démb dama juum wax ne euh, 4 heures laay commencé xëy na làmmi ñi ñoo ma dugg ma tarde te américain buggul tardé foofu nag laa yem du leen wax ndax liggéey naa wala liggéeyum du ma ko wax waaw mais en tout cas même mais instant yi man sax liggéey boobu dama ko buggul woon far xam nga liggéey boobu dama ko buggul woon far xam nga lu tax xam lu tax bugguma ko waaw xam nga lu tax bugguma woon liggéey boobu kii nee na 10 heures c' est 120 000 par jour Amérique neex na waaw bu la neexee am na ñuy liggéey sax te day am heure supplémentaire boo liggéey heure supplémentaire dañ koy doubler est ce que yaa may déglu kii nee na man maa ko tey luy loolu Pa Moussa man maa tey bañ a dem liggéeyi pour lan ndax damaa ragal corona xëy na loolu nga bëgg wax waaw non du question ragal du question ragal man génn naa sama kër pour dem joobi am ñoo xam ne lu ñu xam mu yàqu am na ñoo xam ne lu ñu xam mu yàqu mais instant yi du ma leen wax yàqu na du ma leen wax yàquwul xëy na bu ñu demee ba ci biir live bi ci biir live bi dinaa leen wax kii nee na ma bàyyil wax lépp Serigne Fall mënuñu ci man tous nag barki Rasoul laay ndax liggéey boobu bu yàqu xëy na moo gën ci man gis ngeen supermarché bi bëriwul nit mais supermarché juif yi mu leen woon fële juif yi ñoom ñoom ni ñu ñuy wax ni ñu leen waxee nañ ko defee defee wuñ ko noonu. comprendre voilà kon lolu différence entre Amérique et Sénégal Les adjana souffrent. la àjjana souf mais attention lolu warul tax américain parce que àjjana souf fi la uppé bok fi la di a que Sénégal Sénégal dafa am minorité bo xamné ñom ñoy dundu

da nga ciy génn mais corona bi dafa leen di ràppale ne seen ajana bi lu dara xool leen fii nu mu rafetee xool leen oto yi bu nekk ngay fi gis bu dee lekk fii la ëppee bu dee oto bu rafet fii la ëppee xool leen oto bi regardez sax xool leen maa ngi wax oto bu rafet xool leen bi gis nga xool leen oto bi waaw bu dee jigéen bu rafet fii la ëppee ndax fii nationalité yëpp a fi tase sénégalais yaa ngi fi français yaa ngi fi chinois yaa ngi fi italien yi naar yi juif yi mexicain yi ivoirien yi ñëpp a fi tase ñëpp fi tase fii ajana bu ndaw la lekk bu dee lekk xoolal foo tourné foo tourné ay kiiw lekk la xoolal ñaari Dunkin Donuts ay ay kii yu nice la jaay ay ay gâteau yu neex moo nekk nii gis ngeen ko ne mooy lu lu lu kii noonu lu orange la Dunkin Donuts gis ngeen li nekk a côté restaurant la gis ngeen supermarché bi mu leen woon fii gis ngeen nii boo fa duggee da ngay waaru foo dem kii nee na ma yu miss fa no man man nee na ma da ngaa namoon Amérique namuma Amérique barki Rasul laay nammuma Amérique man damaa wuteeg yéen gars yi yéen loolu ngeen xamul man même bu ma demoon demoon ci désert bi sax am fa li mu fa am foofu àjjana lay doon ci man barki rasulaay man mënoon naa toog Sénégal dootuma dellu si billaahi wallaahi tàllaahi man sax loolu moo doon sama objectif yéen gars yi yéen doo leen dund baatin c'est ça le problème yéen doo leen dund baatin yéen saayir ngeen di dund yéen xamu leen Mister Shake nee na ma da namoon Amérique bu leen ko béyoon dafa xamul rek da namun Amerika, amerique am man resuma Senegal, ku tok senegal ba sa passeport américain tipe si un passeport américain tu peux inviter quelqu'un quelqu'un aux USA ku tok ku tok senegal ba sa passeport américain expiré manam diex loolu ni ko ñemee bëriwul de ah jaara ba <laughs> baygonise na Modou sax jaara Modou lu wax Modou sax lu wax ba nga ko ah tu as le droit nam ma Amérique non damaa namm sax Amérique namm ma Amérique <laughs> gars yi loolu ñu xamul billaahi wallaahi taalaay nam ma Amérique man dama naan dama daan nekk Sénégal ñu ma koy wax am na ku ma ne mais mais yow lan ngay def Sénégal kooku Amérique la nekk Amérique la nekk mu ne ma yow nammuloo sax fii lekk yeeg yooyu mais sama jabar coob yu ma daan toggal lekk lekk la gis nga hamburger neex na trop waaye ceebu jën neex na gis nga pizza neex na lool waaye waaye maa fay yàpp bu jaar yoon dara dàqu nga am domoda bu jaar yoon wex ni mu war a wexe am na sax ko ne domoda day day faj corona <laughs> am na ko fi waxoon am ko fi waxoon dara la moo domoda bu jaar yoon sama jabar bu la toggalee yéen domoda yi surtout domoda yàpp wala domoda jën mooy jënu xonq yooyu noonu jënu fiir Lek, lek la man amerique namu ko namu Amerik. Suman ma Amerik. Amérique du ma duma tok ah du ma toog Sénégal ba sama passeport jeex jeex ma dem diko renouveler mënoon dem diko renouveler am fa problème ñu ne ma li wala li wala la wala lool sax c'est c'est difficile parce que bo américain américain mais on sait jamais mun nga mënoon dem ñu téye ne ma da nga def li wala da nga def la wala li mo manké namuma Amérique namuma ko man fuma tok toog Amérique la ci man Sénégal limu fu fa dund moo gën neex dama dan tok jël sama ordinateur di def sama sama di way sama abonné yi ñi ngi ni ñom xam nañ ci dara ñom jaara ba xam nañ ci ñu nga xam dama dem ba créer leen ben way tëdd rek la doon def sétane di defal sama vidéo des fois ma and ak Mamour Diallo xam nga defar sama vidéo dal ci Sonko dal ci Youssou Ndour wax ci mais surtout toog nekk ak sama jabar mu may toggal togg bu neex xam nga ma nekk sama appartement deux chambres salon cuisine de toilettes Sénégal boo fa amee xaalis jana la Sénégal boo fa xamee boo fa amee xaalis àjjana la seulement différence lekk Sénégal ak lekk Amérique xam lan la set set set

Amérique ne la Mister yow mérité woo toog Sénégal mérité woo ko comprendre nga waaw yow boo buggul boo buggul àjjana sax gis nga boo koy daw boo koy daw yàlla dala koy jox booy daw àjjana yàlla dala koy jox mais boo koy wër di ko forcé booy wër àjjana ngay forcer àjjana di def lu ñaaw pour am xaalis di def lu bon pour lekk-lekk bu neex yàlla safara la lay jox waaw man fii man resuma Amérique man resu suuf si suuf la suuf si ah gars yi non dafa am affaire yoo xam ne man mënu ma leen ko expliquer dafa am affaire yoo xam ne ma leen ko expliquer gis nga mais mais gis nga nit nit da ngay jéem a am benn dimension spirituelle waaw gars yi après ngeen wax ma. wax leen ma nañ def benn pause ngeen wax ma ñaata cas moo am Italie waaw man li may wax yëpp sama gars yi ñu nii di gis nga gars yu naay si ma am gars yu rafet laa li may wax yëpp sama gars yi ngi nii waaw gars yi may leen ma ma sol gants yi rapidement rapido xaaral ma tegaat ko nii non xaaral ma tëdd ba fenn ma sol gants yi rapido non mais gars yi des fois dañ may merloo quoi parce que man Amérique bi ñuy jël bëgg ko def def Amérique Amérique dëkk rek la man Mister Shake man non non àjjana la gaa àjjana la mais man ba ma yàggee am àjjana du léegi su ma sañoon Sénégal laay toog sama jabar mi ngi fa sama jabar mi ngi Sénégal voilà ah. bon mais leen mais leen xool leen asamaan si. waaw kay xool leen asamaan si tuuti. ngeen yéemu ngeen yéemu ci yàlla def. voilà donc ma sol samay gants rapido rapido rapido mente <coughs> voilà. waaw ah, lii de tax laa bi gën a neex sax. ndax sama loxo yi bu seddul damay gën a sawar très bien gis nga gars yi di am beneen dimension dafa am benn dimension boo xam ne benn dimension yow buggoo sax ni may dundal bugguma gémmul sama bopp mais ngay ñëw di am yenn xéewal yi mu lay dal boo utee liggéey am ko wala boo ko ñàkkee am beneen liggéey xam nga nga nekk en bonne santé est-ce que yaa may déglu affaire yu bëri di la dal affaire yu baax yu bëri di la dal loolu du hasard de dafa am noo xam ne boo ko dundee nga baax nga gëm yàlla nga bëgg nit ngay defal ngay toppatoo nit yàlla ci boppam da lay fay comprendre mais nag ça ne veut dire que képp ku nekk Amérique rek àjjana nga nekk am na ñoo xam ne ñu ngi fi mais si safara la nañ avant may egg wax leen ma ñaata kaamoo moo am. Euh, kii nee na ma laaj la ndax ñaata jabar nga am benn jabar nga am wala quatre jabar yow dañ lay bàyyi de dañ lay bàyyi góode parce que man am na yenn question yoo xam ne c'est des question nga baal ma mais question yi kenn xamul question lan la ah jaara ak xadi yéen a ah, bu la neexee ngeen bàyyi ko kooku ah kooku di ma laaj ndax quatre jabar laa am hmm. c'est à vous ah, bu la neexee ngeen bàyyi ko parce que am na question yoo xam ne moom kenn xamul question lan la yow ñu ngi wax ci corona di wax ci adduna bàyyi leen di jël débat bi di ko indiwaat ci Mister Shake Reine Noire ñëw na Reine Noire kooku kooku di ma wax ndax ndax quatre jabar la am ma ren moom dafa pànk gambien bu pank la yaay xol bu la nexe nga bay go nga bay go lutax ngay may xor rek di wax ndax dama am kat jabar yow samay jabar Sayon, sayon waru ci nek yow da nga war tok rek di deglu suma wahai la waxe sama jabar nga ne ah kon ki neena na jabar suma ma la jabar nga ne ñaar ah, ok am ñaar jabar ñet ñet mais di laaj ndax ndax euh ki neena 162 ka fa la senegal <coughs> di laaj ndax euh, live bi dang ci am xaalis ndax yow kaat jabar nga am ah bi ma wax ay wax ay wax yow sama bu ma amee dix jabar sa yoon la ma la sa yoon la mooy sa yoon dañu wax ci corona bi corona mooy buzz ren wax na ko corona corona mooy buzz dañ ci wax dañ wax ci corona bi moo gën ngeen di wax ci Mister Shake wax lañ ci koro bi chauffeur camion dox na fi trop tey

<laughs> non Ibrahima nekk gul modérateur fu mu nekk modérateur yi ñett lañ ay modératrice sax la am Khady Reine ak jaara euh, parce que ñii ñooy jigéen yu pànk yi ñoom xam nañu ndey tuuti moom dafa baax trop moo tax du ma ko def dafa jullite ba mu ëpp day baale modérateur modératrice yuy baygoniser laa soxla mooy modératrice yuy baygoniser mais gars yi Italie ñaata personne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo faatu tey ngeen baal ba ah gars yi baax na gars yi neex na ñaata personne kii nee na damaa ragal sama jabar yi asal leen eh bàyyigoniser leen ma kooku Pape Moussa xaw lan bàyyigoniser eh, leen ko comme il est fou na ko bàyyi eh jaara bàyyigoniser leen pap pap Moussa moom di ma wax da ragal say jabar sa jabar xaw ma nag s'il vous plaît bàyyigoniser leen ko kii nee na hier 700 morts jaajëf xaadim bàyyigoniser leen pap boobu nee na ma damaa ragal sama jabar yow foo yow yow yow yow mais jaara doo ko bàyyigoniser jaara bàyyigoniser ko très bien non ren waxuma la 300 secondes de na disparaître dafa am dafa am 300 secondes yaa ngi koy may sax pour mu ñëwaat déedéet na dem na dem mais ren gis nga ren nu mu gaawee ren na dem na dem Pape sax na dem gis nga mi may wax loo ba maa ngi jéggi tali bi xool ma sax oto mënoon na ma fi fii dañ lay tojal barki Rasulullah boo leen bëggee envoyé dalaa ne facilement dans sa dem ay eh, waxaat bindaatal loolu bindaatal loolu Xadi Xadi li nga wax ni c'est très important bindaat ko mooy affaire xaalis euh, yónnee xaalis ku bëgg yónnee xaalis nu muy def parce que dégg naa western union yi dafa tëj ah. ren mbay gonisel ma kooku na dem amul 300 secondes 300 secondes dafa gaaw très bien ren bokk ci quoi tap tap tap la tudd send ñaata dollar ngay fay mais comme western la. mais est-ce que loolu wóor na Pape Dia ah ñëw fii di ma wax ay sa jabar da ngaa ragal sa jabar yow da nga maa xam baygoon rek ku fi dof dof rek dañ lay baygoniser voilà wax leen ma argent 892 k Argentine ok 18 morts très bien baal ko duñ ko baal soxna Dia soxna Dia di mi ngi jéem a défendre mbokk tukkuleeram boobu Pape Moussa Dia ak soxna Dia soxna Dia ay affaire tukkuleer am bu fi de man sama yaay tukuleur la xam nga ah. pas tukuleur tukuleur mais am na ay mbokk tukuleur sama jabar yaayam tukuleur la deux euros de frais peu importe le montant mais est ce que wóor na gars def affaire dafa bëri ay arnaque de man daal kii wax kon fu mu nekk ni western doxul cheikh waaw waaw yaay cheikh moom yow def leen comme cheikh xëch moom day ree nekk fi di commenté mais di fi wax boo fi waxee loo warul wax mais reine bu len djum baygoniser baygonise <laughs> koo leen waral baygonise <laughs> kii nee na commentaire am tool yi doo ci wax mais xam nga mënuma lire commentaire yëpp mais dama len bëgg expliquer gars yi dama len bëgg ngeen comprendre des fois dina ci am gars yo xam dañuy poser ay questions bien que question yi sax c'est un peu bizarre mais question yi daf may permettre ma wax len kan mooy Mister Shake Amérique mo dakk ci dëkk yi mais ça ne veut pas dire que dëkk yi dëkk boo dem ci sa Afrique ci monde bi dëkk boo dem dafa neex ci ñi yor ci ñi liggéey dëkk boobu day neex xam nga ah kii nee na ci lay envoyé am Khady Diouf nu mu tudd taf taf wala tap tap taf taf taf taf xanaa ay sénégalais ñoo koy ñoo ko yor waa Italie ngeen baal ma Italie ñaata personne ñoo ñoo dee. kenn du ko baal Pa Moussa kii nañ ko ba pare bay baygonisé nañ ko amul yàgg na fii yàggu fii parce que man yàgg naa gis am na Pa Moussa yi bëri na xaw ma nag man Pa Moussa la noir du baala de <laughs> ren <laughs> jaara du baale Khady Diouf du baale ren du baale eh Mamor Mamor ah non Mamor sax day joxe nee na ma bàyyil sa bakken ni ngay laal waaw maam Mor day joxe conseil c'est bien wax na dëgg maam Mor conseil maam Mor tuuti ñu bygoniser la mais maam Mor li mu wax dëgg la il faut ñu bàyyi suñu bakkee ni ñuy laal il faut ñu bàyyi ko mais xam nga fii boo booy dox ci mbedd bi sedd bi sedd bi bu la duggee kon leen mode Amérique sedd bi bu la duggee des fois il faut nga def nii laal sa bakkan mais dañ ne sax booy laal sa bakkan wóoru waaw côté boobu moom tu as raison waaw Cheikh Seye moom mi ngi fi di ree rek ba léegi waaw ah, moo ma doon ñaawal dem ba may uti sama liggéey bu may ñaawal non ba léegi waxagu leen ne ñaata mooy kii nee na 750 personnes 812 morts waa Italie nag waaye yéen nag kañ ngeen di wàññi nag yéen chaque jour yéen a ngi ci 800 yi ah chaque jour yéen a ngi ci 800 yi mais kañ la kañ ngeen di nekk nekk ay 100 sax wala ay 200. ah gars bi mu ngi nice kii nee na tap tap en ah, send via wari waaw dinaa ko xool dinaa ko xool tap tap la tudd tap tap dinaa ko xool jaajëf kon fi mu nekk wari western dafa tëj western yi dañoo tëj kii lu mu wax nii kii nee na xaati ji fi da ngeen pànk nday <laughs> nday nday tuuti bari nee na ngeen tontu ko nee na ndax da ngeen pànk moo tax ñu def leen hmm? xëj nee na may ma cent dollars xëj boo bëggee ñu may la ko da ngay ñëw fii chaque jour di seetaan nga abone ngay ngay def ay commentaire ba xëy na benn jour rek mën naa aalu rek ah ne la kii nee na luy baygon <laughs> découverte TV <laughs> découverte TV dafa am nit ñoo xam dañ fiy ñëw au ñu ñu ñëw seetaan rek wala ñu def commentaire bokk ci waxtaan bi xelal nit ñi ci ci corona bi nga xam ne dafa am solo man li may def dafa am solo mais dañ fiy ñëw découverte TV dañ fiy ñëw di wax ay waxu wax yoo xam ne amul benn pertinance di saaga am na ñoo xam sax dañuy saaga am na ku tudd xaw ma lan lan defar l'islam ñëw li mu njëkk bind mooy xaw ma duul xaw ma lan te moom mu ngi tuddee boppam defar l'islam ñooñ nag dañ leen di baygoniser dafa am ñetti nit yoo xam dam lañ jox pouvoir baygoniser mooy dañ leen di éliminer ci chaîne bi dootuñu mun a commenter dootuñu mën def dara Mati Tourap moom buy def um, live am noonu la leen tuddee ku ku déconné rek mbóot yi mbóot yi da leen di baygon <laughs> da leen di loolu mooy baygoniser voilà mais 800 morts Italie bëri na Espagne ñaata moo dee tey ngeen baal ma ñaata moo gaañu ah luy 7000 Jibi Fall nee na 7000 déedéet waxaatal bindaatal yow euh, li mu wax ci western ah. waxal ci Sonko non du ma wax ci Sonko du ma wax Sonko ñun corona la ñu wax. corona dafa dafa dafa dafa éliminer ñooñu ñëpp ay Sonko ah. Sorona corona dafa éliminer Sonko éliminer Youssou Ndour éliminer Wally sek éliminer mr Shake 812 morts en Italie 800 Espagne tamit 800. kii nee na seddaay bi la gën a yëpp waaw dëgg la dëgg la mais gars yi gars yi xam nga lan ngeen xamul lan ngeen xamul ah li ngeen xamul mooy corona bi ci benn côté baax na France 3000 décès 3000 décès su ma naan corona bi baax na ñu bëri naan monsieur Cheikh dafa soxor wala déedéet déedéet yàlla soxorul yàlla moo indi corona 812 morts en Espagne xam nga corona lan lay wan lan lay wane.

maître Gims boo seetaanee le prix après payé bi nga xam ne maître Gims li mu wax ci franc yi li mu wax ci société secrète yi nga xam ne am na nit ñoo xam ne dañuy jaay seen ruu ngir xaalis gars yi nekk milliardaire ak yomb nekk milliardaire ak a yomb wala nga nekk multi millionnaire ak a surtout man mii Amérique bi ma nekk su ma bëggoon am xaalis léegi xaalis bu bëri wala yéen ñi nekk Europe am na ci ñoo xam ne bu ñu bëggee xaalis ak mais am na foo affaire bon yoo xam ne bo fa demé ah bu la jaralé jaay drogue bu la jaralé ray nit bu la jaralé wor nit don la maître Jim doon expliquer au début da ngay ñew ñom ñolé lay signaloo benn pacte gis nga maître Jim ba muy signer sidit yi lañu dag dread dret bi la signer dret bi la signer légui après da ngay am xaliss surtout ci nak ci musiciens ak ci artistes nek cinéma da ngay am xaliss da ngay am daraja waaye fi ngay muju muju bu ñaaw ngay muju loolu la ñuy tuddee vendre son âme au diable <coughs> xam nga vendre son âme au diable man de je ne vendrai jamais mon âme au ay immeuble oto yu rafet jigéen yu rafet lekk bu neex ma may fen ma may jaay sama ngor lu ma may rey nit jaraluma may liggéey nit may def magie noire wala may bokk ci ay secte yu bon korona boo gisee mu am mooy corona boo gisee mu am euh, waaw kii kii nee na loolu yëpp fii lay des gis nga korona boo gisee mu am maa ngi nii ci parc bi xaaral ma toog tuuti ah gars yi tey man maa ngi commencé sonn de baadu man koro bi daf may waaj a dugg mos ma gis ma def live toog waaye tey toog naa. gis nga corona gars yi li mu leen ba expliquer dafa am importance ba nga xam ne xaw ma sax laa koy commencé li mu bëgg expliquer xaw ma ndax xaj na ci bopp yenn gars yi xam naa ne dina xaj ci bopp Ibrahima Pleya ak Khady Diouf ngeen baal ma ñenn nañu tuutewu ma leen de li mu bëgg expliquer corona dafa am ñuy tëj frontières yi ñuy tëj frontières yi n'est-ce pas américains yi ne européens yi du ñu dugg Sénégal ñu ne maliens du ñu dugg wala euh, guinéens du ñu dugg mais adduna bu ñu nekk waruloon sax am frontière gis nga adduna bi frontière sax waru fi am gars yi ban année la ñu nekk kan moom moo mën a wax ban année la ñu nekk ban date tey tey ban date la kan moom moo a wax vraie date bi ñu nekk tey la lan tey la lan kan moom ku mu bindal ku ma ko bindal ku ma bindal li may waaj a xalaat gañe nga cinquante dollars man xam naa ne kenn du ko trouvé kenn du ko trouvé cinquante dollars ku ma mën a wax date bi ñu nekk exactement pas exactement mais appro approximativement date bi ñu nekk ku ma ko mën a wax kii nee na 1973 déedéet daanu nga 2020 daanu nga le 30 euh, mars 2030 euh, daanu nga ana Ibrahima kan moo ma mën a wax ban date la ñu nekk ban date la ñu nekk calendrier laa leen di laaj calendrier xanaa yéen bëggu leen 50 dollars la Lassana Dramé nee na 3 le 30 déedéet nekk ñu le 30 mars Khady Diouf nekk ñu le 30 mars déedéet 2020 non non juum nga kii nee na 2002 21e siècle non non 2050 eggaguñ fa.

xaaral ma jox leen ay clues ay indice parce que am na koo xam ne yéene naa ko cinquante dollars wax dëgg bëgguma fi jóge te joxuma nit cinquante dollars mais nag cinquante dollars yi xaw ma kañ laa la ko fay maa ngi nii di ut yooyu ma jox leen ay indice ci ban calendrier ngeen basé wu yéen ci ban calendrier ngeen basé wu pour wax ne tey la 30 mars 2020 lu tax ngeen basé wu ci calendrier boobu du poisson d'avril egguñu avril ren noir barki restolay du poisson d'avril jox naa leen jox naa leen benn kii benn indice ban calendrier ngeen basé wu ñu loo leen dañ leen gëmloo leen tey la 30 mars 2020 ngeen ngeen nangu ne la tey la 30 mars 2020 loolu mooy seen problème c'est ça votre problème société bi dafa leen conditionné gëmloo leen lu mu bëgg ngeen gëm ko ñu wax leen waaw xaaral ma joxaat leen beneen indice xaaral ma joxaat leen beneen indice kuy jullit kuy jullit est-ce que tey mooy 30 mais deux mille trente mars deux mille am na ku bind quatorze mille quatre cent quarante et un xamu xamu ci ban nga ko kii kii nee na ak kay gis nga Ibrahima nee naa leen Ibrahima chaque jour moo leen raw waaw mais ba léegi Ibrahima trouvé gul solution bi mais Ibrahima moo leen raw fu mu nekk nii parce que moom nee na calendrier judéo chrétien ci calendrier chrétien ngeen basé wu yéen kii nee na 5 avril 14 1441 euh, euh, Khady Sagna kooku ban calendrier la ah jaara ba tamit xaw na jege parce que mu ngi wax Euh, Mohamed kon calendrier chrétien dafa am calendrier jullit am mais ñaar yooyu yëpp ñaar yooyu yëpp ba léegi du nekkuñu foofu déedéet déedéet même calendrier man jullit laa def même calendrier bu dee 1441 mooy calendrier jullit loolu sax du date bi ban date la ñu nekk na ma nit jox na ma nit jox na nit jox euh, kii bi.

2441 1441 nekkuñu fa ko xeyna yeen ci weeru julit ngén ngén ngén abu ngén ki nekkuñu fa nekkuñu fa voilà ah yéen bëggu leen 50 dollars bëggu leen ko bëggu leen ko waaw ah, mais amul problème benen yoon dina poser waat benn question xaar ma wax len xam ban calendrier lañ nek ah boy xol rek boy xol wa d'après la science xaar ma joxaat len benen benen benen indice d'après la science bo basé wu ci science.

ay lepp la jaaraba gagné nga 50 dollars très bien jaaraba gagné na 50 dollars loolu moy jaara bindat ko ñu nekkati jaara mo leen gëna xel xel <laughs> xelam day nacc parce que jaara daf may suivre wax leen terre bi suuf si ñaata at la am fofu ngeen wara baser pour ci calendrier ban lañ nek jaara bindat ko ndax jaara au moins joxna approximativement 4 milliards 500 millions d'années Wow, 4 milliards 540 millions d'années Tay, tay, loolu la bu la neexee ñu nga ñu ngi ci 4 milliards 540 millions 2020 vous la neexee sax nga yokk ci 2020 ndax approximativement la leen jox loolu mooy loolu calendrier mais calendrier bi ñuy bi ñuy teg nii dañ ko def parce que dañ ko basé ci souci si ak weer bi xam ngeen lan mooy jour bravo Diarra est-ce que xam ngeen lan jour jour moins vingt quatre heures la moins heure vingt quatre heures moins souci, si bu wëndaloo ci ci soleil bi non non souci si bu tourné ci boppam la terre tourne sur elle-même en vingt quatre heures mais lolu mo indi heure tay bu ma leen bu ma leen neex fi ban ban heure nga mo jot lan ngeen may wax midi ana soleil bi mo moo nekk nii di feeñ xawma sax mais suuf si day wëndeelu ci bopam ba pare di wëndeelu di di wër jant bi suuf si bu wëree jant bi ba mu mat loolu lañuy tuddee at suuf si bu commencé Sénégal di wër amul sax Sénégal suuf si bu commencé di wër jant bi bu ko wëree ba ba mu mat ba mu wër ko ba mu mat loolu mooy at mais suuf si bu wëree bu wëndeelee ci boppam la terre tourne ndax tu si dafa mel balu balu football rek gis nga balu football mu roome boo sanni won tay ci air bi mu tak ci air bi di wëndeelu boppam bu wëndelo ba mu mat lolu moy 24 heures lolu moy 24 heures kon calendrier amul légui ñun ñu ngi fi yoon ñu ngi fi depuis 4 milliards 500 millions d'années sous si mi ngi fi 4 milliards 500 millions d'années ñun ñu bëgg gëmlo suñu bop ne 2000 ans rek lañ fi defagum 2000 ans 2020 ans ngeen nangul lolu Hein? Um, mais 4 milliards d'années yooyu un nit nit ñaata million d'années le le 1 million rek Mais basé waxuma ay ah, ah, Adama wala Awa mais xol len ci <coughs> ci Adama ak Awa xol science parce que yalla le ñu jox science yalla moo ñu jox science. yàlla nee na defar naa suuf si 4 milliare d'années 4 milliards d'années gars yi gars yi bëri na mais ba mu defaree 4 milliards d'années defarugul sax nit defar na 4 milliards d'années un million d'années rek ci la nit commencé ñëw donc ci 4 milliards yooyu am na yeneen affaires yu amoon yoo xam ne ñun fekkeewuñ ko boo demee am na lu gënoon garaaw nit sax lu jot ñëw ci suuf si ba dem ba jeexal bu leen fàtte ne ay dinosaure amoon ay ay xamul luma xamul ak ay T-rex ak yuma xamul mais waxuma sax job malik bobu baygoniser leen ko parce que mom amul xel mom liñu wax ci mom xajal malik job baygoniser leen ko parce que mi ngi saaga voilà gis nga gis nga gis nga wa ki neena na on on utilise le calendrier baygon len ko malik job baygon len ko waaw. man li leen expliquer rek il faut que gars yi ngeen di utiliser mind très bien utiliser leen seen mind te société bi di gis nga contrôler ci calendrier bi <coughs> gis nga contrôler ci calendrier bi lañ contrôler ci religion yi xaaral ma jox exemple léegi képp kuy da ngay religion animiste képp koo xam ne garab sa wala. wala jant bi moy sa yalla da ngay japp ne koku nekul ci dara dam len di laaj chinois yi ñoñu upp fouf un milliard deux millions te chinois yi ci bari ay lan lañu ay ki lañu ay bouddhiste gay dam len di laaj ndax bouddhiste yi bu ñu deewee ajjana jëm wala safara lañu jëm kan moom wax len ma budé julit nga ah budé julit nga da nga nan bouddhiste bu dewe safara la jëm wa gis nga ba sax lolo wax mais mais bouddhiste boko ko bo boo laajee bouddhiste te bouddhiste ñoo ñu ëpp de julit bu dewe fal la jëm mom bouddhiste tam mu la mën na la wax ne ah, euh, safara amul xam nga bouddhiste lan la ñu gëm bo dewe yalla da lay defaraat nga ñëwaat mais bu fekke da nga naan def lu baax bu fekke da nga naan def lu baax yalla mën na la def nga nek milliardaire wala nga nek ko xam nga am bonne santé parce que milliardaire tamit sant ba baax di tu heure hein yalla dal dalay defal dalay defarat nga nga sa aduna gëna neex xeyna na ñun ñii buddhiste yi xam lan lañu gëm dañu gëm ni ñun ñi ñun ñi bo gisee tey ñu nekkat ay nit suñu affaire dafa dañoo baxoon mais bo gisee par exemple mbam xuux wala nga gis kaña kaña nit la woon nit la woon mais dañ def lu bon leen ñu nekk ay kaña jul ku nekk ak li nga gëm ku nekk ak li nga gëm mais nag yéen buleen leen topp religion à la lettre man jullit laa man ba léegi dama gëm jullit mais islaam dafay cax gis nga Coran bi day cax waaw waxul ne rek boo jullee yàlla wax na ko dangay gis nit ku julli yonent bi am na benn benn benn bu demee noonu benn waa joo xam ne daanul julli day naan di màndi di def lépp mais benn muus mooy dox ci mbedd bi sonu lekul dara julit di rombu musi biñu toputo mus bi mais gis nga mandikat bobu ak clochar bobu moom mu jël mew dal di jox euh, mus bi yonent bi ne gis ngeen ki bu dewe aljana la jëm mais gis nga ñi ñepp julit yi yëpp rombu mus bi wuñ ko amna ci ñu xam buñu dewe safara la jëm donc lolu xex la dalay ne du julli mo lay yobbu aljana yalla dafa ne yonent bi dafa ne ak yalla nit dañ ko defar pour mu jëfëndiko ak mu jëfëndiko xelam mais tubaab bi dañu bëgg contrôler suñu mind contrôler ko ci calendrier lañ ko jëkk a gëm loolu ay anniversaire ay ñaata at nga am ak lii patati patata ba pare contrôler la ci liggéey mais liggéey gars yi du yoon gars liggéey du yoon c'est pas normal gars yi man maa ngi nii di rey sama bopp chaque jour di ut liggéey nan leen wu liggéey bato bi laa bëgg liggéey bii laa bëgg liggéey euh, paralegal ne dem ci avocat yi mais damaa ñàkk pexe rek mais man yéen ñii ñëpp ku ci sañoon ni nga ni ma def ngay def toog ci parc bi yàlla lii moo tax mu bind ñu gars yi xool leen ajjana ça le jardin ajjana ça veut dire jardin lii du jardin lii du jardin yàlla lii la ñu bindee daf ñu bind teg ñu ci ajjana ci ci jardin bi pomme yi nekk fi orange yi nekk fi mais waxul kenn demal nga tëju ci benn bureau nga tëj ñu tëj la foofu di la contrôler dila dila dila dila dila bundu khatal ngay yenu ay affaire amna ci liggéey yo xamne dafa metti amna ño xamne ci mbalit la ñuy liggéey ci mbalit la ñuy liggéey di ko nooyi am na ñoo xam ne ci ay affaire chimique lañuy ñuy liggéey buñ fa faré gis nga Ibrahima nee ko le travail une forme d'aliénation yalla yàlla wuñu ci souf pour ñuy liggéey ni déedéet xam ban façon liggéey lañu yalla jox te liggéey bobu sax metti mettiwul agriculture te yalla sax daf ñoko koo daf ñu koo wan ndax ndax garab mooy jékki-jékki euh, kii bi benn xoox pomme bu waddee ci suuf xoox yooyu day sax bu saxee après mu ñëwaat nit noonu la noonu la noonu la gisee yàlla sax waxuñu ñun booy xool waxuñu sax demal ngeen nekk ay ay ay baykat ndax yàlla moo ñu jàngal baykat ndax garab yi ñoom ñooy créer seen bopp euh, li nga xam ne boo ko boo ko jëmbatee ci la ci la kii di ñëw napp napp booy xool du liggéey ndax yàlla defar na jën yi ba pare yow leen rek la laaj demal nga jël jën yi xam nga fii ajana la su ajana mooy mooy jardin mais dafa am ay nit yu bon système tubaab yi dañu dañu siis dañu siis bugguñ ñëpp dundoo ajana moo tax ñuy ñuy noot nit ñi ñii ñu leen di liggéeyloo par force xam nga tubaab yi dañoo naxa naxa naxa naxa dox suñu mind man ñun africain bu njëkk ba daal ñu def genre liggéey yi nekk ci ay ay usine di rey suñu bopp wala nekk ci ay bureau dootoo da ngay nekk ci bureau mais lii mooy nit nit danga war a génn nga nga nga nga nga ci nature bi xool leen li asamaan si soleil bi waroon a génn tey ba ma gën leen ko wan nit dafa war a dafa war a noyyi dafa war a profiter mais yéen ñu jël leen confiner leen yéen ñi ñu confiner France est-ce que yàlla lii moo taxoon mu jël leen bi nag foofu la ñëwee voilà maa ngi maa ngi ñëw

fi mu nekk dafa mel ne man maa moom maa moom fii des fois damay génn xoolal keroog ba ma demee fële euh, Times Square dafa mel ne maa moom Times Square man rek maa fa nekkoon day mel ni film zombie yooyu film zombie xam nga voilà léegi nag des fois il faut que ngeen di xalaatee ni may xalaatee ak ni Ibrahima di xalaatee ak Jaaraba ak Khady Diouf utiliser leen seen mind te xam ne société bi ñun dañoo contrôler dañoo noot dañoo noot ñu mind yi dañ ko noot dañoo noot suñu maa ni bugguñu ñuy toog di xalaat dee bugguñu ñuy xalaat yàlla dee dañ ko def loo xam ne da nga ko war a ragal par force danga war a ragal dee par force corona bi loolu tax mu baax parce que nit ñi ay affaire dof rek la ñuy def ay affaire caaxaan mais jeux olympiques yi ñu annulé ak maa ci kontaan ak maa kontaan ci jeux olympiques yi ñu annulé xool leen fu caaxaan yooyu sport dara gënul bon lu sport man dama daan football de mais dañ lay gëmloo boo bëggee am xaalis il nga dem football yi nga rey sa bop di football ana Kobe Bryant vingt ans ngay daw ci di daw di basket vingt ans sa genou yi sa xol yàqu sey sey articulation yàqu sportif yeb buñu buñu buñu buñu buñu ñu bu retraité duñu am santé tous les grands sportifs dañ lay nax nan la Michael Jordan c'est le plus grand basketteur du monde Kobe Bryant c'est le plus grand ana Kobe tey bo déwé fat lan la lay jëriñ boo dewee nga nga am si championnat wala ngay nekk euh, euh, euh, Modou Lo ñu ne la la yaay roi des arènes wala Balla Gaye boo deewee lan la lay jëriñ doo réer réer da ngaa réer yow àdduna yàlla bindu la fi pour nga nekk fi di bëree rek waxuñu la bul bëree bëreel mais boo bëree parce que société moo la ko imposé mais terewul war nga toog nga xalaatat comme Mister Shake ni muy xalaate nga ne ah am na leneen loo tax yàlla binduñu lu tax yàlla binduñu. ñu ñu nekk ci aljana nekk ci safara en même temps gaay ne ñun fi aljana la nekk safara en même temps aljana la nekk safara en même temps waaw legui nan nga wara def ba mu nekk ba bo fi tay mu nekk aljana ila yawmidin mais gis nga ñi dañoo free ñi dañoo free ñi gis nga ni nga ñi di daw nanguwuñu société bi daal di leen noot ne la waroo génn da ngay toog mais na ngay toogee sa kër gars yi 17 jours 20 jours j' espère que au moins xaar ma continuer dox parce que dafa am ngaa ne buy tux fi j' espère que au moins yéen a ngi tijji seen i fenêtre di aéré waaw corona bi nag ku mu war a dal dalay dal corona ku mu war a dal dalay dal waaw man léegi il faut que ma wax sama liggéey waaw parce que xam naa ni ñu bëri ñu ngi xaar ndax dañoo dàq Mister Shake wala dàq ñu ko wala dàq ñu Mister Shake léegi dinaa leen wax lan moo xew démba waaw xam naa ñu bëri loolu la ñuy xaar fi mu nekk nii mais dama leen di bëgg a gëmloo rek ne affaire bi du ay affaire yu job job bi am na ci importance trop mais société bi daf ñoo noot daf ñoo noot daf ñoo noot dañ ko contrôler les tubaab les les les les occidentaux là ils sont forts du occidentaux yi sax certains hommes laay wax parce que lii yàgg na avant. nit yag contrôler même Afrique sax mais ils sont très forts la façon dont ils ont euh, ils ont régimenté la vie des hommes avec un calendrier avec euh, la religion avec l'école le système éducatif avec euh, le système professionnel

dafa bëgg jigéen topp ci jigéen rek ah kon léegi ñoom dañoo bëgg jigéen dañu foqal ci jigéen xaaral ñu indi benn feebar boo bëggee boo ëppalee ci jigéen wala nga ëpp ci affaire bu sëy ñu indi la sida lekk lekk baa ngi nii neex na mais doo lekk tuuti rek arrêté mais da ngaa foqale ci lekk xaaral da nga ci lekk xaaral ñu indi la jabet wala ñu indi la bëñ buy metti parce que booy yàgg di lekk lu am suukar suukar day dem ba yàq sa bët bët say say bët kii du nelaw kii du nelaw topp topp topp uh, uh, bànneexu àddana rek ah, du nelaw nekk ci baari di naan xaaral ñu yàq ñu indil ko kii booy naan uh, kii ngay am lu mu tudd xaw ma cirrhose la tudd xaw ma sa foie ñooy yàqu donc mais ni ñu ni ñu régimenté société bi moo doy waar dafa doy waar ba pare li ci gën a garaaw mooy ay corona ñoom ñoo koy jëkki jékki daal di ko génnee yéen nag mënu leen gëm loolu mënu leen gëm loolu mais lu mel ne corona gars yi ñoo koy génne bu leen fàtte bu leen fàtte geeru geeru euh, Irak bi mais George Bush moo ko créer américains ñoo ko créé pour pétrole pour nangu pétrole Irak Saddam Hussein waaw ñoom ñu jékki-jékki rek ne Saddam Hussein dafa am ay euh, euh, dafa am ay arme nucléaire gëmloo ko congrès yi gëmloo ko américain américain américains gëm ko mais ba ñu demee ba def enquête après ci biir la ñu xamné nek nekk dañoo fen ñoom seen ils ont créé la guerre de guerre la la la euh, ñu ko tuddee won desert storm la tempête du désert guerre bobu mo tax tey aduna bi yàqu ndax Saddam Hussein ñep xamné né dictateur la won waye mom téye na irakien N'ari n'ari naari sax lay wax. Saddam ussin dafa téewoon naar yi seen loxo te lenn ngeen xamul ci naar naar dafa bëgg affaire guerrier naar dafa bëgg di jox boppam tur turu guerre boo tuddee Mister Shake au lieu nga yem ci Mister Shake déedéet dañ naan non Mister Shake le brave Mister Shake le conquérant naar boo gis même le jihadistes là koo ci gis dañuy tuddee seen bopp abu xawmalan abu hazim abu li même sénégalais yi jot a def euh, jihad ah ñoom kii njaay ak yooyu fàttali naa sax nu ñu tudd ah ak ñoom joxaane xaw ma dañ leen utal kii kii waa ji nekk bokk aram daf leen utal ay turu guerre Saddam Hussein nag daf leen téye woon mais ba fa Saddam jugee nag ci la foofu yëpp yàqu nag arab yi nga xam dañoo bëgg histoire ngeen baal ma naar dafa bëgg histoire ak bëgg yu fu jëree naar yi nag boo leen joxee fetal naar dictateur la xam naar xamul xamul démocratie wax leen ma benn pays naar bu am démocratie wax leen ma ko actuellement kii ku muy wax naan bul mer ñoo far fii kenn meru fu dañ lay bàyyi dañ lay bàyyi ko di de xaw ma nag ci ban contexte la ko waxee gars yi wax leen ma benn dëkku naar boo xam ne démocratie moo fa am boo xam day am ay élection normale président boo xam day toog foofu cinq ans après ñu def élection mu jàll amul Iran amul démocratie doo bàyyi li ngay wax Iran ayotala yi ñoo ko téye seen loxo di ut arme nucléaire wax leen ma wax leen ma benn pays naar américain nag ñoo yàq foofu génne fa Saddam ndax Saddam moo leen téye woon ba fa Saddam génne nag ci la euh, euh, organisation bu bon bi nan la tudd terroristes yu bon mi nan lañ tudd waay waxuma Al-Qaïda de ndax Al-Qaïda kii la woon Osama Ben Laden mais kii islamique mooy terroristes yu bon ni rek Ibrahima Traoré wax ma nu ñu tudd ñooñu ñoo gën ñoo raw ay ay Qaeda waaw ba ba ba guerre Irak bi ñëwee nag ci la ci la ñooñu ñëw nan lañu tudd terroriste waaw kay ISIS jaajëf Ibrahima ci la ISIS ñëw gis nga ISIS dafa ñëw nag daal di yàqate foofu yëpp ISIS moo law bañ dugg Mali daal di dugg Nigéria daal di dugg euh, euh, Burkina Faso te bu ñu sàgganee dina dugg état islamique waaw dina dugg Sénégal ñoom nag dafa ci am ay minorité yu mel ne ay George Bush ñoom noonu la ñuy def dañuy toog des fois rek di créer ay problème corona bi tamit noonu la demee chinois yi ñoo ko créer corona bi man damay jàpp damay jàpp am na gaañ bi ñuy tox xaar ma arrêté sama respiration corona bi Maroc démocratie doo li nga wax yow kii moo fa nekk xam ne roi la démocratie amul ci pays noir amul même Liban yi sax amul démocratie amul fa ñoom dictateur naar dictateur la xam xamul démocratie dictateur la xam moo tax ñuy exploser yow na ngay nekkee jullit dem ci benn benn mosquée daal di exploser sa bopp reyale ay nit loolu ci temps yonent bi la commencé bu leen fàtte ne xalif yëpp dañ leen rey temps yonent bi ay Seydina Omar ak ay Seydina xaw ma Ali dem leen ngeen étudier ko man dama ko dama dama jàng ma xool ñu ci bëri am na ci koo xam ne naa Omar defe naa ci jumaa jëlee ko fekk door ko jaasi barke Rasulullah rey rek ba fa yonent bu jógee xëccoo ñuy xëccoo di reyante ku ku toog ju la kenn rek moo fa toog vingt ans kooku sax après doomam moom it dañ ko rey dañ doon di reyante di reyante rek pour pouvoir ak naar loolu la xam depuis seen temps temps yonent ba amul démocratie benn clan Khourech le le clan Khourech ñi nekk Arabie Saoudite ñoo fa nekkoon depuis yonent bi ba léegi ñoo fa nekk xamuñu li la mooy démocratie xamuñu ko kon nag américain bu ñu ñëwee jaxase carte bi foofu moo ñu indi lii yëpp corona bi tamit dee ko jëlee noonu waaw corona bi kii nee na ma sama xam-xam laay wax luy loolu ma li ma la wax dafa am nga naan ma sama xam-xam ngay wax mais George Bush moo yàq loolu ñu def ci congrès bi fii assemblée bi def na ci enquête ba ñoom ñu nangu ne dëgg la dañoo feenoon wax la ne Saddam dafa am ay armes nucléaires bëgg bëgg bëgg yàq àdduna bi dañoo bëggoon pétrole lu pétrole bi moo leen intéressé ñoom ñu dem ba nangu loolu nga naan man sama xam-xam laay wax waxuma sama xam-xam man lii laay wax ci sénégalais sénégalais ci boppam moo dëgër fit man waxuma sama xam-xam man xam-xam bi ma lay jox su ma leen ne la terre ak 4 milliards d'années kooku boo ko weddee c'est parce que yow yàlla nga weddee yàlla ba mu defaree suuf seeg léegi mat na 4 milliards année boobu ma wedd du science loolu yàlla moo ñu jox xel boobu ñu def suñuy calcul xam ne loolu am na kon da bugg bëgg wax ne soleil bi ñaa kañ la fi nekk da ngeen bëgg wax ne soleil bi 2000 ans rek la fi nekk ah 4 milliards d'années du ay foo te 4 milliards moo gënul tuuti ci yàlla yàlla li muy defar ndax soleil bi benn rek la benn la rek suñu galaxie am na ay sole yu ko ëpp fuuf soleil suñu sole suñu jant bi am na ay jant yu ko ëpp junni yoon yu ko gën a rëy junni yoon ñu ngi si suñu jaww jii ay milliards yi milliards jaww ñoo nekk fii te loolu yàlla ba mu ko defaree du tey yàlla ba mu defaree àdduna 4 milliards d'années gars yi xam nga la mooy 4 milliards yàlla ba mu defaree àdduna àdduna ah, ñun amuñu ay chiffres xam nga booy calculer da ngay wax milliard boo jigee milliard lan la moo topp ci milliard trillion boo jógee ci trillion la moo ci topp xamuñu nit yàlla lim ba mu defaree àdduna adduna nit mënu ko mënul wax ne lii la mënu ko xam comprendre bàyyi leen bu nit di di di di wax ngeen di wax ne sa xam-xam ngay joxe wala da ngay théoriser man lépp lu ma wax rek dama ko basé ci lii lii du ay fo lii lii lii man fi mu nekk nii yéen ci ay gént ngeen nekk wala mën na am ah foofu foofu Ibrahima mën na am ma bàyyi ko mu mu mu développé foofu parce que des fois day mel ne àdduna day mel ne yow ci gént nga nekk waaw am na ñoo xam ne dañ ne lii yëpp amul ci gént la ñu nekk benn gént te am na nu muy demee gént boobu yow boo ko mënee contrôler boo mënee contrôler sa gént mën nga nekk mën nga nekk lu la neex ah jaara ba amna kumu kumu mu jaara ko baygonise fofu baaru wa yoji dan ma wax legi nan ma sax xam-xam ngay joxe hein ah, xawma ndax koku sax mom jaarul baygonise waaw waaye nag boo ko nak dina comprendre lu tax ngeen baygonise ko ñun duñu dara nit du tous corona buñu yobbo ñun ñep <laughs> corona buñu yobbo lol nga yaaka dafa déranger ya hein ah? corona buñu yobbo da nga yaakaar ne dérangé na yalla ci dara. wa ah, gay ban heure jot heure amerique nek wax leen ma ban heure amerique mo jot demb fi la tok di wax di wax ba wara dem liggéey tardé tardé bu métti gis nga américain yaa ngi ni ni ngi nii ñu ni waaw di dox xol le vous voyez vous voyez regardez jàppaleen ci misaal la rek ay waaye ajana nan la war a mel kii nee na non Moussa Doucouré dafa wax man dox rek waaw waaw waaw waaw eh, ban heure moo jot 13h04 ah kon nag heure Amérique kon gaa yi maa ngi commencé dellu sama liggéey bi ma wax leen li ci am parce que man du ma leen nëbb ok foofu waaw loolu gis nga laaj bi monsieur Cheikh day neex yéen ñi toog ba heure bi mérité ngeen ma wax leen lan moo xew démb sama liggéey sans dugg peut-être ci yenn détails démb 13h04 euh, voilà très bien démb dama waroon dem liggéey quatre heures mais expliqué naa leen ko ma tardé Cheikh Seye ngi nii du ma ma bàyyi ma raconté des histoires mais ba ma demee 4 euh, heures. la wax te gaa yi ñu ñu jël dañ leen ne boo tardé dañ lay dàq amul sikki sàq dañ lay dàq. am na ñoo xam ne tey xam naa ñu ngi yaakaar ñu ngi bëgg ma wax ma jox leen nouvelle bi ñu bëgg mooy dàq nañu monsieur Cheikh waaye ñooñu ah je suis je suis au regret de vous informer que kenn dàquma waaw ah, ah, kay waaw ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne rek dañoo bañ monsieur Cheikh rek xam lu tax ñu bañ monsieur Cheikh te monsieur Cheikh ak li mu leen li mu leen di jox ci xam-xam man bu may wax ay jaww ji di leen wax ay 4 milliards d'années xam ngeen ak système bi man gëmuma liggéey liggéey boo gisee ma def ko parce que damaa bokk ci système bi. moo dawoon connexion bi moo dawoon mais j'espère que vous bi moo ma tënk comprendre système bi moo ma tënk dama ci mënul dara rek il faut ma liggéey comme ñëpp mais bu ma sañoon du ma liggéey. motax ma dem senegal mais au moins man na len tane ndax man ma ngi dund sama life ni mu ko bëggee ndax man dama bañ système bi bañ ko ba nga xam dama ne duma tok ci muk di di di liggéey di liggéey ba dé xey ben dé jour dé dé dé suma démé ba dajalé sama ben xaliss ma ngi ak papier xol situation bi gis tuba bi ni ñuy bundu xalat bundu xatalé des fois mané xaar ma dem Sénégal noppalu ko 3 ans et demi té gis nga ba démé senegal ma sha allah amna fa jabar sha allah fa lu neex xam nga. mais pour vous dire ñi nga nous sommes dañu ñu y a sax man 4 heures lañ mais 4 heures demi sax 4 heures demi demie..! parce que quand je suis demee ba ci biir emploi de temps bi de ma sax da tardé ma la ma ko mais qui bi le train le train mais waxul dara waxul dara et puis bama bama ba ma punché mooy ba ma pour commencer liguey après ci la gis ñu bind nekkate sax man 4h30 la waron liguey démb kon sama gëm yalla xeyna ak sen ñaani ak sen ñaani yi ndax am xam dañoo bax ama yon doon ma ñaana mais mujj am liguey bi mais nak dama leen di wax la mo xew ci biir liguey bi parce que man dama leen doon expliquer ne man corona bi liggéey boobu am nga ko rek ça pas dire que da nga ko war a nekk fi di ñaawal nit ñi di wax am naa liggéey wala di tiitaru ndax man liggéey boobu bu ma fi nekkee di tiitaru ak corona bii ma dugg fa gis fa ay affaire yu doy waar ah loolu laa leen bëgg expliquer nii pour wal leen ne corona bi du ay caaxaan waaw corona bi du ay caaxaan du ay fo ndax man dama ne leen liggéey boobu xaar ma jaare nii waaw man dama leen liggéey boobu am na nu muy demee dama koy bàyyi gars damay bàyyi liggéey boobu mais li nga nekk bu lii dafa leen di wan ñun moodu moodu yi lu ñuy dund gis nga moodu moodu yi lu ñuy dund ay guerrier ay jàmbaar lañu waaw xaaral leen ñuy defar senegal kañ lay mel ni kañ la ñuy tabax ay immeuble yu mel ni ñun moodu moodu yi ay jàmbaar lañu ay guerrier ndax sedd bi dañuy liggéey mais li gën a bon mooy mooy kii am corona am ñu ne toog leen seen kër man ma génn dugg ci train loolu risque la dox ci mbedd bi génn rek ne damay dox ci mbedd bi risque la dugg ci train risque la te train yi dafa bëri ay gars ngeen baal ma train Amérique leen nag ko yàq dafa bëri ay dof démb dugg naa ci train <coughs> barke Rasuul laay dugg naa ci train benn dof sol ay saagu plastique billahi ay saagu plastique les sol ci kaw ba ci suuf ñu rek dugg rek jëm sama jëm jëm ci man mais ba mu ñëwee dama dafa ñëw rek man tegg ko dem ci beneen côté ba mais dof yooyu mais mën na am corona parce que ñoom chaque instant ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci kii bi gis ngeen danger yi ñuy dund ñun nga dugg bus bus c'est un milieu très fermé bu fa corona bi corona bi nekkee danga koy am nga jóge fa ma dem ci entreprise ba mais entreprise bi entreprise bu mag la nit ñi fa nekk dafa bëri yaa may dégg nit ñi nit ñi kii nee na kon ni foofu am na ay dof dof fii la ëppee fii la ëppee ak ak clochard yi bëri nañ fi mënoo dugg ci train doo gis benn dof surtout nag man xaw ma lan la temps yi moom dañoo gën a bëri mais nag dinaa la wax benn affaire hiver bi nag lay ëppee parce hiver bi comme mbedd bi day sedd ñom dañuy burle dañuy dal di dugg mais dof yi dañ fi bari clochard mais nak dof américain ak dof Sénégal Ils ben en général dof américain ño sont du ñëpp mais ñom ño sont présentable quoi <laughs> gaa ngeen bal ma <coughs> dof mom dof la rek jour dugg ci bus mais ben dof dugg sont bi américain bi ñu jek rek jokk mais dof bi nu dafa ñàng mais fi dafa bëri ay dof américain yu bëri noir surtout nak ay noir lañuy ñuy noir américain mais dañu dañu dañu ma xala ah, système bi la système bi nu mu mel la ndaysan bo jangul nga nekk ci projet yi gis violence gis sa papa di drogué wu sa yaay sa papa euh euh, euh am doom sa papa dem liggéey nous sommes ko surtout noir yi fii ni ñu xattee xattaale noir yu bëri ñu ngi ci prison bi boo ci prison bi am problème avec la loi gis nga da ngay dem ut liggéey ñu man mais dem naa ut mais après laay doo comprendre ne juif yi jël noir da ngay ñëw ñu ne way way way way jël sa application demal après mais te foofu man xam naa ne lig instant bi liggéey yi dafa bëri mais noir yi dañ ñuy xeex dañuy xeex ci yu bëri bëri bëri entreprise bi nga gis muy jëlaate ñàkk pexe moo tax muy jëlaate entreprise bi moom dafa soxla ay nit entreprise bi day jël fii ba ilaa yow mi din corona bi sax da leen indil da leen gën a indil liggéey ñun ñu buñ bañ demee dem ba xam lan la ñuy wax gars yi doon liggéey fii ñu bëri dañoo bàyyi kon foofu ngeen xam ne monsieur Cheikh Guéré la ah ñii doon yaakaar ne su ma demee dañ may dàq xanaa seen yaakaar tas na foofu man Mister Shake yaakaarul liggéey bi pour réussir comprendre nga réussir Mister Shake ba mu réussir du tey man ba ma réussir du tey xam man sama réussir mooy lan ma ni ma xamee yàlla ni ma xamee yàlla lu mu defar li mu ñu defar fii indi ñu fii yéen gars yi suuf si yéen xamu leen sax lan mooy suuf la terre barki rasulullah yéen xamu leen lan mooy laay teer adduna bi ni muy spéciale ay xëy na ay ndey ndey tuuti bari xëy na ñoom dinañ ko xam parce que ay jullit lañ mais yéen suuf si nu mu spéciale yi xamu leen ko tubaab yeeg système bi dafa yàq xelu nit ñi lëndëmal xelu nit ñi ba miracle yi am fii mais xool leen garab di génne ay fruits ay pomme xool leen sama jabar bi ñuy nàmpal xool leen meew buy génn ci jigéen meew meew mooy génn ci jigéen xool leen ji nit fu muy jóge ci biir ci biiru ji nit jigéen lay nekk nit ci biiru jigéen lay nekk ah neuf mois yàlla defar xel yi defar ah, loxo yi yéen xam nga yéen c'est-à-dire yéen yéen man li may li may li may analyser yéen ko analyser man sama dom bu mu juddoo limay may konté compté xam nga mooy lan baaraam yi <laughs> té xamna du man rek té amna na si ñoo sax xamna duñ ko sax def ñu bëré bu ñuy wasin fur ñoom eh dom bi judd na mais normalement sage-femme yi li ñu njëkk xol baram yi la ñuy compté xool bët yi ndax baxna testé nopp bi ndax baxna xol tanki ndax baram tanki yi mat na mais lolu c'est pas donné c'est pas donné kon far par force dafa wara am mais amna jigen yo xam dañuy wasin dañ naan eh judd na rek ñu né ah alhamdullah dañuy dañuy dañuy japp rek né lepp normal la mais amna ño xam dañuy judd sen bébé tax am ño xam dañuy judd sen bop bébé am ñaari ñaari bop wara ñenti tank man sama dom bu mu juddoo ñu présenté bako ma ngi ma ngi ñaan ay way ma ngi xol ay way beut yi ba bax na machallah ci la né machallah barami bu ci nek 5 la <laughs> amul six wala sept macha allah mais yéen miracle yi nekk ci suuf ci suuf xamu leen ko xamu leen ko yàlla dafay defar ay miracle yàlla day foo xool leen melentaan gars yi des fois nga gis melentaan yu ndaw ndaw te melentaan yi dañuy dox seen soxla am seen société di tabax ay affaire di bërëng ay suuf xool leen picc ñu muy defaree ay tàgg ah? yéen yéen miracle yi yéen suuf si yéen xamu leen suuf si ni ajjana la yéen mënu leen ko xam parce que yéen mettit bi rek yéen mettit bi rek ngeen gis feebar yi ngeen gis corona ngeen gis cancer ngeen gis mais gis nga gis nga waaw beauté divine gis nga jaww ji nag surtout nag ku bëgg yéemu dëgg ku bëgg yéemu dëgg jaww ji ngay xool mais avant ngay dem jaww ji rek suuf si suuf si gis nga daw jaww ji nu mu nu mu rëyee jaww ji nu mu rëyee ba amul fu mu yem xanaa xamoo ne pepp pepp xanaa xamoo ne microbe bi ñuy wax corona tey gars yi moo moo jox leen benn xam-xam xëy na ñoom Ibrahima Ibrahima Playa xëy na xam na lool mais lii ba mu ko xamee sax man mii sax ba mu ko xamee yàggul xëy na ay cinq ans yooyu lay doon gis nga yàlla nu mu defaree jaww ji amul fu mu yem pour wan leen jaww ji fu mu toll amul fu mu yem du jeex amul fu mu yem amul fu mu yem mais gis nga microbe boko jelle microbe corona microbe boko ko buñ ko dugalee ci laboratoire scientifique yi buñ koy xol li wax cellule cellule wala cellule nit fofu tamit ad la budul ya jeex yalla dafa defar aduna budul jeex ci lu reuy def ko ci lu tuti gis nga pep souf tay boko ko jëloon dugal ko ci laboratoire bi diko analyser di nga ci gis ay affaire yo xamne du jeex loolu mooy yàlla kon nag boo nekkee fii boo nekkee ci àdduna ñu lay wax ay coronavirus ngay tiit xool leen xool leen xaar ma jële leen ñi ñu lay woon gis nga ñii xam nga nit ñi faale wuñu coronavirus mais lii c'est dangereux xool leen ñu ngi nii bëri di di di waxuñu nag bul moytu waxuñu bul moytu de mun damay moytu mais gis nga espagnol si ñoom li ñuy def nii c'est dangereux waxuñu bul moytu waaw da ngay moytu da ngay moytu bu baax. waaye waaye um, man li may wax rek mooy um, sama gars yi instant yi maa ngi ñibbi mais dama leen bëgg expliquer il faut ngeen xam li ngeen nekk il faut ngeen xam ko boo bañee sonn ci àdduna da ngay xam li la yàlla defal ki nee na ma ñaata mais dox bi dafa baax dox bi entrainement la dox bi mais entraînement la nit da nga war a di entraîner danga war a di lekk danga nga war suuf si gis nga yàlla moo ñu defal li xool picc yi gis nga la picc yaa ngi nii di naaw mais yàlla daf ñu daf ñu indi foo xam ne dafa spécial mais fii mooy li gën a ndaw ci li yàlla defar am na yeneen suuf yu gën a garaaw yoo xam ne yàlla defar na ko am fa yeneen yu fa gën a garaaw bu ñu deewee yàlla rek a xam fan la ñuy dekkee yàlla rek xam loolu na ngeen war a xam kon gars yi nañu def noonu légui li ci dess xanaa ma bàyyi leen ku nek commenter mais instant yi mën nañu conclure live bi suñu bëggé voilà xaaral égal rek fuma doon liggé pour wan leen corona bi ba ma duggee ba ma duggee damaa gis né dafa bari nit dama gis né dafa bari nit té neexul ba neexul ñom ñi ngi jéma appliquer ah ñu ngi jéma appliquer pour nit ñi baña a mais fofu wax dëgg ku fay liggé yaa ngi jël risque. koku mom duma leen ko neub man man ma ngi jël ay risque pour dem liggéey fo xam lan lañ wax tay bu fekké dañu ñëw liggéey si ku ci nekk dañ lay jël sa température bala ngay dugg xolal loolu xolal loolu ku ci nekk dañ lay jël sa température buñu gisé gisee sa température romb na xawma 38 degré la xawma ma ah, buñ ko gisé do dugg nenañ ku soj wala nga am yenn fièvre grippe bu ñëwati ñun ñii sax nañ ñu bu la nexé bu la ñëw man fi mu nek ni buma nexé duma dem liggéey wax nañ ñu bu la nexé bu la ñew té dara dara duñ ci fekk mais nek guerrier bañ ku ma yàpp may dem di ñafé di dem liggéey bañ ku ma yàpp parce que bëgg na di yor sama xaalisu bop bëgg na suma démé Sénégal kenn duma wax da nga raté wala di ñaawal ay yenn immigré yi fa am comprendre mais man lépp dama ko teg ci loxo yàlla rek maa ngi dem liggéey fu ma war a arrêté damay arrêté man noonu laay demee xam man na laay demee feeling feeling instant bi j'ai pesé la pour et le contre xam nga je me suis dit que li gën comme man dama ñëw fii pour liggéey dama ñëw fii dëkk bi pour liggéey may ut liggéey yàlla daf ma am liggéey dama war a dem liggéey man daal loolu laa gis ndax corona bi jeexee ah? ñu bëri dinañ bëgg liggéey fii xëy na duñ fa mën a liggéey corona bu jeexee ñun ñi nga xam ne ñun jël nañu plaisir jël nañu risque dem liggéey corona bu bi jeexee ñun dinañ ñu wax bu ñu bëggee liggéey dañuy liggéey mais ñi nga xam ne dañ ne imaginel tey man démb moo doon sama sama premier jour ma ne ma mais loolu mooy loolu mooy bàyyi naa loolu nag man man nag mënuma mënuma jël risque boobu loolu tax ma dem job mais nag d'un autre côté dem liggéey ba jëlee fa corona ndax fofu dafa reuy dafa reuy te ñom dañ ne chaque chaque pas de ñu wara respecter affaire bi 2 mètres 2 mètres 2 mètres dafa wara am espace ba mais ki ñuy former mais mo ñu doon won liggéey bi ni ngeen wara def li ngeen wara def mais ñaar lañ sax ñaar nit ñoo ñu doon former man man ba ma ñëwee nekk en retard dafa fekk benen gaay loolu sax mom may chance benen gaay nekk ci biti mom tam xawma ay dossier mënu ñu won gis dossier

li ñuy wax social distancing maanaam dafa war am benn distance sociale entre les gens ba pare joxuñu ay masque gants yi ñoom ñoo ñu ko jox gis nga gants bi mu sol ñoom ñoo ñu ko jox mais gants yi jox ñu ko dañu bàyyi dañuy former ba mu nekk ay une heure de temps ci la ñu koy jox ko jox donc dama bëgg expliquer ne foofu tey bu fa kenn amee. coronavirus ñun ñëpp même bu ñu ko amul sax dañuy mettre en quarantaine te man loolu bu amee dina ma mettre trop parce que man bëgguma kenn ku ma quarantaine ku ma confinement loolu mooy danger bi fi mu nekk nii même bu ma ko amul même bu ma ko amul bu ko fa kenn amee rek kenn bu ko fa amee rek dañuy tëj usine bi usine boobu am na beneen état bu mu am defe naa Maryland la xaw ma usine bi lay wax mu ngi woon ci beneen état mais xoolal dafa am benn nit bu ko fa am benn nit moo ko fa am ñu tëj usine ba te usine boobu ay mën ay deux cent personnes mën nañu fa liggéey ay trois cent personnes mën nañu fa liggéey entreprise boobu ma leen wax mais imagine ñu tëj ko ba pare nag bu ñu ko tëjee nag ci la ñuy xool kan nga nekkaloon en contact direct ki yow sa bopp dañ naan la toogal sa kër bul ñëwati ba pare nag ñu xool caméra yi caméra yi la xool kan nga nekkaloon en contact direct képp koo nekkal en contact direct dañ lay testé buñ la testé même bu situé waaw xanaa ñu testé la nga nekk négatif waaw même situé négatif sax dañ lay dañ lay dañ lay mettre en quarantaine gars yi nag man loolu lay dund fi mu nekk nii waaw bugguma ku ma mettre en quarantaine mais sava va très difficile du ma leen ko nëbb de du ma leen ko nëbb de si je continue à travailler là-bas ça va très difficile que duñ ma mettre en quarantaine man nii ay xibaar naa leen di jox ça va très difficile ndax man démb laa commencé te démb ni ma commencé jaxasoo naa ak nit ñi démb ni ma commencé nii mais jaxasoo naa ak nit ñi ci loolu rek ci loolu rek bu ko kenn amee foofu xanaa ngeen ñaanal ma kenn bañ ko am wala avant boobu ma bàyyi waaw ndax man su ma liggéeyee tey nii maa ngi évaluer dinaa leen informer daal mais tey su ma liggéeyee su ma demee liggéey mu leer ne man liggéey naa deux jours ah après après naa évaluer ndax damay bàyyi <laughs> ndax ñoom ñoo ñu ko wax gis nga Amérique li moo tax Amérique neex billaahi ndax ci biir formation bi ah ci biir formation bi nit moo ñëw non non bàyyi bi garaawul Aliou Aliou moto ñom ñoo ñu ne comme entreprise bi des fois dañuy jékki-jékki gis nit am am ko wala affaire nous xam lan wax xam lan nit parce que ñu bëri dañoo toog seen ñun loolu wax ci formation bi li tax ñu jël leen yéen ñii li tax ñu leen di continuer di jël ngeen am liggéey ñi fi daan

man ne leen daal man daal xool naa xool mais daal dama ragal wala su ma neexee sax na inventé ma na leen damaa soj man daal du ma ñëw kenn du ma dàq bu ñu ma dàqee dama leen di porter te damay gagné kon corona bi loolu la noonu laa noonu lañ koy dundee voilà gars yi gis ngeen sama live ki nee na jaara sama bopp laa ree tey toute la journée mu ne lan xam lan lan bu ëpp baaxul setaan Mister today is Monday today du Monday de tey du Monday tey Tuesday non du tey la mardi wala tey la lundi man de pour man tey wax nga dëgg tey la lundi man dimanche a commencé tu as raison wax nga dëgg ah way kii nee na ma amal jàmm waaw ah, waaw ñu noonu nit ñaa ngi nii di circuler voilà ah tey moom j'espère que jox naa leen xam-xam jox naa leen xam-xam wax leen la moo waral corona bi léegi nag comme li may bañ dal mu dal ma démb laay bañ mu dal bu ma tardé deux jours moom du baax mais ñi toog fii di ma ñaanal di ma iñaane mais da ngeen di sonal seen bopp bu dul liggéey bi di lig di beneen fii mooy America fii mooy United States of America gis nga fii boo fi nekkee defoo fi dara xam nga ñi ñoo am problème liggéey xam nga ñoo am problème liggéey mooy ndeysaan ñi amul kayit ben. même ñu amul kayit sax mën nga liggéey au noir mais ñi fi gëna am problème moy comme tay nga am li ñu wax record record ma manam nga am casier judiciaire yow nga am problème ak loi bi ñoo ñu am problème mais yow bu fekkene dañ lay def euh, test drog test drog liggéey bi may def nga kan ne ma testé won gis yamba ci man duñ ma jël bu ma testé won gis yamba ci man duñ ma jël wala ñu gis benen ay cocaïne ak yoy duñ ma jël gaa yu bari nag moom mooy tax nag après ñu dem bay mujj nekk ay clochard parce que dañu am record imagine tubaab bi ñu ni ñu xeexee ni ñu nootee jàpp suñuy xale noir yi di leen tëj ci ay affaire yu ñàkk fayda te buñ la tëjee lu mu ñàkk fayda ñàkk fayda loolu la ñuy wax demina dafa am li ñuy wax felony felony felony mooy crime bu garaaw crime bu garaaw misdemeanor moom mooy crime la mais du crime bu garaaw même mis mais misdemeanor sax dañ la koy laaj booy booy booy ut liggéey est-ce que mës nañ la tëj pour misdemeanor ah est-ce que mës nañ la tëj ci lii yooyu lañ lay laaj boo ci amee benn rek mën na yàq sa job sa job noire nag noonu lañ leen xeexee ba léegi ñu si bëri dañuy obligé dem nekk ci di jaay ay yamba wala di di di sàcc loolu rek lañu mën a def pour survivre boo koy def nag ñu lay tëj di la bàyyi di la tëj di la bàyyi bu yàggee dootoo am foo dëkk ndax boo bëggee tëdd xaw ma nag France nu mu mel ak Europe mais fii boo fa bëggee appartement dañuy xool sa bulletin de salaire ñaata nga fayee ko xam nga ba pare ñu xool sa histoire nga daan nekk daan nga fa fay mais boo boo liggéeyul doo am appartement boo amul appartement fooy def da ngay obligé di fanaan ci mbedd bi noonu nag ngay dem nag ba ñekk jékk rek dof nag voilà loolu tax dof yu bëri voilà kon gars yi def nañu une heure seize minutes kii nee na bul tiit bu ragal awma lu may tiit man aw ma lu may tiit xam lu tax ma ne aw ma lu may tiit ah? yàlla li mu leen expliqué da ngeen di mettre li ñu wax mettre les choses en perspective boo xoolee sa boppa li yàlla defar yëpp yaa ci gën a ndaw yàlla li mu defar ñun ñoo ci gën a ndaw seulement nag nit dafa nax boppam ci lislaam lislaam waxul ne yàlla moo tax ñu bind mu bind ñun moo tax ñu bind ajjana ñu mu bind àdduna foofu la juume ku wax ne nit nit moo tax yàlla bind àdduna <laughs> yaa ngi nax sa bopp ñun duñu dara ñun avant ñuy ñëw li jot a jaar est-ce que xam nga la mooy waaw ah. voilà gars yi ngeen baal ma sama batterie bi jeex na nag léegi mu jeex mais dama la bëgg expliquer rek ñun ñun duñu dara avant ñuy ñëw ci suuf si 4 milliards d'années dafa bëri gars yi 4 milliards d'années lu ne jaar na fi dem li ñuy wax extinction extinction xam nga mooy lan lu daan am amatul te loo lu xase dem extinction dootoo ñëwaat yàlla lu mu defar benn yoon bu bu demee comme tey comme tey am na ay ay ay affaires yoo xam ne dafa amoon ay dinosaures mais dinosaures mënatul am yàlla bu xasale defar benn yoon ba mu jàll bu ko neexee nag mën na defaraat mais suñu suuf si bopp boo xasee disparaître xanaa booy ñëw beneen façon ngay doon beneen façon xeet li jot a jàll dee dafa bëri lii ñëw yéen da ngeen yaakaar ne àdduna bu tukkee suuf si day yàqu suuf si du yàqu de ñun ñooy dee àdduna bu tukkee suuf si du yàqu de suuf si mi ngi fi encore un million d'années ndax suuf si moo kii bi ñooy ànd soleil bi souci même bu dara jógee feulé ñëw dal ci kaw mbëkk ko rey li fi nek yépp ndox bi deñ lépp suuf si mën na dundaat d'ici 100 000 ans wala 1 million d'années yalla mëna dundat benen façon kon aduna buy tukki ñun ñoy tukki mais mom aduna mu ngi fi suñu soleil rek dese na ko un million d'années énergie bi nek ci mom jeex après nak mu exploser nak bu exploser nek ci lay lakkaale planète yëpp planète yépp lay lakk léegi fofu nak lañuy disparaître

xam nga xal boobu day leer leer boobu nag mooy ñëw ci ñun loolu la wax explosion soleil bi day exploser safara la buy exploser mais buy jeex buy dee day imploser maanaam ci biir ci biiram lay dem waaw après day dem ba nekk affaire ba ne bul bu bu ndaw mais bul boobu day am day am doole lu romb da xëcc loolu la ñuy wax trou noir gars yi li mu leen wax nii ay science la waa sama batterie jeex na kon suba incha allah dinaa leen wax liggéey bi nu mu demee ak corona bi foofu nu mu demee mais ñaanal leen ma mais tar na jox nañu ay gants mais joxuñu ñu masque soluñu masque soluñu dara kon bu ko fa kenn amee rek dina doy waate foofu dafa bëri ay nit pour kenn bañ ko fa am dina du yomb pour kenn bañ ko fa am du yomb mais yàlla baax na yàlla baax na lu lu am rek ñu gérer kon gars ba suba moytu leen yéen tamit te ngeen sant yàlla. aw sant len yalla ngeen ngeen di def ay recherche ah, dina bax ok ba suba inshallah allah